dafa am atam ay nit yu bare alal wax ni seen bëgg-bëgg yépp mooy fexe ba ku bokk ci tariqa cheikh ak ku bokk ci tariqa maam Sëriñ Tuubaa ñu reyante mu ni jaral na ko mu fay ci milliards yu dul jeex ba ay doomi daara nangul ko ko ku ne am nga fa bokk nun daal la ñu gënoon a bëgg wax nañu ko nun daal noo toog fii ni Sénégal bés bu tiijaan yi joteeg murit yi gàcce dana am ñëpp daañu saaga yonent bi ndax yonent bi dafa am nooni boppam xamuloo ni boo toll woon ca réew ya ca àll ba ñu dégg ni tiijaan yeeg murit yi jubóowuñu kenn du saaga murit yeeg tiijaan yi yonent bi la saaga ni njabootam yi noonu la ñu mel jubuñu am na ñu ko bañ ba àgg foofu di bind ba léegi di ko saaga ñu di leen tontu ah ñu di leen tontu kilifa ñëw na fii ci ndakaaru fekk ma ni ma dama bëgg lu ngeen bëgg a pour dal ci kaw murit yi ma jox leen alal ju ni toll ma ni ko bàyyil ma xalaat ci ñaari fan mu dëdd ma ni ndaw toppal ma ko waaw feeg ëllëg bu fi taqalikoog moom waaye ba mu ba mu añee ba noppi ca ngoon nga la gont dem fekki sëriñ Abdoulahat te lam ma wax la ko wax pour wax la ni lëwoon démb deñul lëwoon démb deñul la woon démb deñul yàlla dafa am njabootam iblis am njabootam te lu mu jaral yàlla jaral na ko iblis mu mel ni kon nag yàlla ngi noo dimbale ba nu xam euh, général sa waaj ko gën a mën a fen ci àdduna gis moo nee na képp koo xam ne gëmoo Cheikh Ahmed Tidiane si doo gàtt du loolu la wax léegi la dëkk lañ ko dàqee dàqee dàqee ni fa ñoo moroom mu ngi nii fees ñoo xam naa yoo xam ne sa xoolal gëmuñu ko waaw ah, te fees gam dëkk ko suul naa dañ ko dimbale rek suul ko foofu gëmuñu ko fii am naa yoo xam ne xamuñ kan mooy Cheikh Tidiane si Cheikh Cheikh hmm? Sénégal rek ñoo ko gëm ñoo gëm Sénégal ñoo ëpp ñu ko gëm fii ci Maroc fii waaw Algérie moom gëmuñu ko dafa lañ ko dàqee ba mu daw ñëw fii ñi dimbale ko voilà kon fekkee ne day am lu weex rek envoyé ko sama bi ne ko Cheikh Tidiane euh, euh, Chérif ba muy wax noonu te mu fii Algérie lañ ko dàqee mu daw fii nii te naa dañ ko dimbale rek dañ ko dimbale denc ko fi am na naar yoo xam ne xamuñu ko buntu jàkkam dañ fay tux dañ fay naan sàngara comprendre nga wax ko loolu ba mu ko envoyé ko bi muy fen li muy wax yëpp fen la xamu ci dara am na ñu nekk fii Maroc naar yi xamuñu sax Seydi Gassama Cherif xamuñu ko naar yi yonente bi lañ xam yonente bi ak i saxaabam voilà. Ah, yow Seexuna Tijaani dama ne Sénégal rek rek rek ñum fi am jàngal nañu sa seriñ yow ma yow sa sëriñ ku ko eh, eh, xaadi jàngal na ko ma jaxate kala jàngal na seex mooy sëriñam. <laughs> yow lan nga sa sëriñ ay sëriñam yëpp dëkk ci tarixa tijaan ngay ñangu di di di tagg sa sëriñ di di ŋàññi seex Moussa Ka day fen man Yunus maa leen ko wax sëñ Moussa ku ngeen dina mos ka day fen man Yunus maa leen ko wax day kàcc waaye bu mu tontoo bu mu bindee seex ba seex gasama delloo ko tëj na gémmiñam xam na ni ndekete ko muy méngaleeg seex du du taalibe seex bu gën a tuuti du moromam waaw te nga bakk sa mbër bañ ci boole waa Fass moom moom la ko moom la ko moom la ko moom la ko Pape Gassama delloo xasida boobu mu delloo ko ko dëng dama ciy bañ a sore ndax fu mu toll nii sama xol dafa lu bëri mu ngi sama bopp mënuma ko wax. mënuma ko moo tax maa ngi xaar ay ñeenti radd yu mel ni yi ma def ñu delloo ko fenkat yi duñu bu ñu xaarati mukkuy fenal seex ñu noppi man de jël na ma sama responsable total mboolem ku fenal seex si daxama tëdd si daal tijaani dinaa la li ngeen wax yépp ay fen la Cheikh Cheikh Oumar Tidiane ñu musul ñëw Sénégal mu ngi ne le phase lu mu def ba yilif Cheikh Oumar loolu ngeen war a xalaat ah te nga dellu ñu si naaru gànnaar yi ñu ne téere xa adduna téere xam-xamul islam yëpp buñ ko lakkoon suul ko dinañ ko fekk ti dënn benn góor mooy Seexu Umar Fuutiyu Taal mu benn ko zéro faute te Seexu Umar Tijaan la est ce yow si yow wax ma yow sa sëriñ yan ponkal la am wax ma ko est ce que bu fekkente ne yéen seen sëriñ sëriñ la dina corrompre pour nit di leen jas bu ngir ñu doon ay taalibeem sëriñ bu mat du woo kenn yaa koy gis nga xam ne waajaa ngi nii waaye sëriñ boo xam ne dafa yor ay musallas di ko këll këlle bu la joxee loxo bu rëddee nga taxale ko sa sago nga jébbaloog moom jébbalu ci moom te bu dof bu ngeen dof loo lettre bu mu bind bàyyi ko ci xolom maa ngi ko yor bu ngeen dof loo dinaa génnee lettre bi yéenay tax nit di wax lu mu bëggut wax li ci gën a tuuti sa sëriñ ma xamal la loolu ci tarixa cheikh la deyee tey bu mu jógee ci géej bi ko ko jox wirdu moom sëñ Touba man maa ko wax cheikh amal naaru gànnaar bu weex tala ko ko jox Cheikh Amal moo ko ko jox moo ko jox wirdu mu dellu muy moom won balaa muy dem géej bi bu doon julli ci géej gi alhamdulilah lay tàmbale lu tax bu mu jógee ci géej gi bu muy tàmbale mu commencé bismillahi rahmaani rahim ba am ay seexam yu ko ci bëgg a roy mu ne leen déedéet lii jagle sama jagle la nekk leen ci li ma leen kon daf leen war a wax carrément man bay naa tarixa bi ma sos du yoon lii yoon mooy tiijaan a fi des waaye waxu leen ko parce bu dee ko am yàlla dina def noonu. ay fen la ay kàcc la li ngeen dégg yëpp ay fen la mboolem koo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi contre Cheikh Sidi Ahmed Tidiane feroo iji ak koo doon ak koo doon feroo iji mo du du du gat du ñu gat du ñu gat man maa ko wax man maa ko wax ñii fii nekk leen ñoo fi nekkal tarixa bi nekkaluñ fi tarixa bi il faut ñu génn ñu wax maam Ablaye Niass Cheikh Seydil Hadji Malick maam Thierno nekk fi. ñeneen ponkal yi ñu mën a tudd ak yi ñu mën a tudd yëpp ñu nekk fi ñëpp ñu doon généraliser nga xam ne ku ci gën a tuuti ku ci gën a tuuti du morom seen waay bu ñuy bakk ah bu fekkente ne moom seen sëriñ jullee na daram ci biir géej gi am na sëriñ boo xam ne mu ngi ci bokk ci taalibe seex yi gën a tuuti laay mën a wax sax kaalaam la jël lal ko ci géej ay taalibeem toog ñu ñu ñu jéggi mu jëggi leen géej bi mu jël kaala bi fëgg mu gën a poussière delloo ko ci baatam. lu loolu dali dara loolu du dara kon duñu tus duñu gàtt ñooy ba ñooy tax nag nit wax lu mu bëgg a wax lu mu lu wax waxuma dara nag waxuma dara de waaye nag maa ngi am yoo xam ne su ngeen yëngalee ma dellu in uttum naut ñu wax leen lu garaaw lu ngeen musul dégg ñun xam nañu lu xew xam nañu lu baax a baax lu xew bu leen jàpp jàpp seen lammiñ yi rek di ngari ngari ah defe ne yéen a xam lu xew amu leen lu xew ñun xam nañu nu ngeen xamee lu xew ñu ne noonu la ñu xam lu xew noonu la ñu xamee ah, bu fekkente ne ni bu fekkente ne ni yéen ah, seen waa ji ngeen di wax am na wilaya est-ce que di ngeen ko seen bu fekkente ne seen kër googu wilaya mu ngi fa est-ce que di ngeen di ngeen ne seen waa ji fii lañ ko suul te suuluñu ko fa est di ngeen ne Touba lañ ko suul te suuluñu ko Touba mu ngi ne leen njaareem te li ko fa tax ba mu li ko tax mu dee foofu ñun xam nañ ko te bu ngeen yéexee ñu wax leen ko kon man maa leen ko wax li ngeen dëgg du ay fen neen neen ñoom nag fen mooy dundal sa yaram bés boo amee nag sëriñ buy fen bu yeboo nga lem sa bagage nga dem nga xam ne yàlla nekkatu lii moo am donc lu ñuy wax yépp ay kàcc la naan seen sëriñ am na ponkal yu se amul waral aduna ba mu daj l'islam de boo ko xaajee ci digg quatre-vingt dama nekk trente cinq pour cent yëpp ou bien cinquante pour cent ay tiijaan lañ waaw kon li ngay naan yow sa sëriñ am na ay ponkal yu mu yor ñoo raw ñu ñu seex am ay sen la se na yéen seen tarixa bi Sénégal kese la fi lëmbee yéen seen yéen seen li ngeen yor du tarixa il faut ngeen xam loolu lu ngeen yor du tarixa mbootaay la association la amul génnee leen seen test yi ngeen indi ban téere ba xam-xam adduna moo leen défendre yéen seen tarixa ban kan moo leen défendre Sénégal rek ngeen di humbal te matu leen fi minorité laa wax masu leen ko fi tijaane leen ëpp fuuf kon loolu jaru ñuy wax na ngeen ma génnee murit yan téere ñoo leen défendre ñoom sa sëriñ de nee na sa sëriñ laa lay waxom man duma la tuumal muk demal ci mbindam yaaraa imal kamaali ko wax fi saada min turqil mashaayixi salaasa tariqati imaamil jiili wa sanusiyi haa'izi tafdili summa abil abbaasi faxril kummali man hukmuhu fil qasdi hukmil awwali sa sëriñ a ko wax de waaw sëñ Tuubaa ko wax mu ne yow mii sakku gaayu mat ya gaayu mat yi yow mi ngi yow mi nga xam ne yaa leen di sakku ñettu ngoog imaamu imaamu Abdul Xaadir Jeelaane ngoog imaamu Sanusi ngoog dégg nga Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ngoog moom mi nga xam ne mooy faxril kummali puukare wu mat dëgg dëgg dëgg mooy Cheikh Sidi Ahmad tiijaan kon yow wuute nga li nga li nga taggee sa sëriñ li nga ko duulal wuute nag moom li mu wax seex bu fekkente ne kon sa sëriñ dafa tagg seex ba noppi mu wàññeeku ginnaaw wax leneen kon bu yeboo ngeen bàyyi ko matut sëriñ bu fekkee dafay tagg seex ci ay téeréem bu wéetee ti yéen door dëndam du sëriñ man maa leen ko wax du sëriñ lu mu am ci ay góor yàlla seex amu ko ay kàcc la lu tax mu dem ci alaaji Malick mu may ko wirru maa lay laaj yow bu fekkente ne yow xam nga dara yow yaayu sa sëriñ yaayam ban wirdu la wirdu be dee boo ko xamul tey ma wax la maam jaara busoo tijaani ya tijaan la woon ku ko may mooy maba jaxu ba taalibe cheikhu omar baayam ku ma baayam taalibe maba la bu leen fontoo ñi ñii yenay tax nit di wax lu mu bugut wax parce que bu am nay murit yoo xam ne xam nañu ñu xew tëj nañu seen gémmiñ yaru loolu du ñu rek tax duñu duñu duñu mën a xuus yeneen xuus yi waaye dafa jot man de du ma toog mukk nit di ngaññi sama sëriñ seex ma muñ du ma mënuma ko parce que dama. wax bi mu nga wax nag sa sëriñ moo féete kaw Seex si daax Sidi Ahmad Tijaani ay fen la bu fekkente ne sa sëriñ moo ko moo la ko wax waxul dëgg kooku man maa leen ko wax man Yunus maa leen ko wax bu fekkente ne wax ne moo bu fekkente ne sëriñam wax na dëgg du jël tarixa cheikh benn li sa sëriñ di wax ne bu dul ku dul yàlla moo la féetee kaw c'est des mensonges ay kacc la waaw kon yonent bi bokk na ci ngay bëgg a wax parce que ku dul yàlla yonente fee yonentee fi ne <laughs> loolu ay waxi reetaan loola sax ku dul yàlla yonentee fi ne kon bu fekkete ne yow da nga sa sëriñ moo wax ni ku dul yàlla moo ko gën sa sëriñ waxul dëgg bu dee moo ko wax waaw tuumalu ma ko nag de ma moo ko wa de dama bu fekkente ne sa sëriñ a ko wax sa sëriñ waxul benn yoon dëgg man maa ko wax bu fekkente ne nag yow yaa ko duulal àndal ci tegal ci kàcc yi yow yi waxoo dëgg dëng te tuddoo ba ngay tudd bu fekkee da nga ko duulal ngir wutil ko maqaama tuddoo bi nga tudd ci moom dogg nga ci moom waaw sa sëriñ bu fekkente ne ni boo delloo ci mbindam mu ngi naan yaqulu abdullahi wa huwa xadimo nee na yaqulu di la wax abdullahi jaamu yàlla bi wa huwa mbir moomu la moom xadimu surga yonent bi la kon nit nan nga koy génnee ba noppi léew ngay ne sa sëriñ moo ne ginnaaw yàlla moom moo ci tegu ba noppi nga mu wàññeeku doon surga yonent bi c'est des mensonges ay fen la ay fen yu tàng ay fen yu tàng la man maa ko wax ñaareel bi ngay wax di jël sa sëriñ nga ne sa sëriñ am na taalibe yu seex amul ay fen la sa sëriñ taalibe seex la tey ma xamal leen loolu bu mu alaaji Malick moo ko may wirdu lu tax yéen du ngeen ko wax yen ngeen ne yéen sëñ Touba da jël la wirdu Tijaan waaw ku ko ko jox <laughs> du ngeen ko wax parce que da ngeen naa feq da ngeen mën fen da ngeen mën kàcc par parloo nag lañ leen yaree da waaye xam nga ni sa sëriñ ñemul ubbi gémmiñam wax loolu de xalaatu ko sax xalaatu ko xalaatu ko mukk alaaji malik may na ko wirdu ñaari yoon ba ñetteel bi mu ñëw ci alaaji malik moo ne ko duma la ko jox jox naa la ko ñetti yoon nga dog ci nga génn ci bu fekkente ne moom sëñ Tuubaa am na tuuti tuuti ah, sa boobu bu fekkente ne am na tuuti ci yàlla am na tuuti cër ci yàlla du wor nitu yàlla waaw nitu yàlla ku ko wor sa lépp yàqu sa rawatina ku mel ni Seex Sidi Ahmad Tijaani aa ku mel ni Cheikh Sidi Ahmada Tidiane boo ko woree di nga dog ci yàlla di nga dog ci lépp sa léppay coupé booy dee di dem safara du man maa ko wax de yonent a ko ko wax cheikh du du waxantu mukk jàpp rek sëñ Moussa Ka gis nga bi mu ñu koy misaal dafa wax ne ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa faas taraw ya euh, rija ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa faas taraw yaarame faas yi rijal mukk naas aram tara ay naa yemis ko cheikh yi jamaalal wa kamaana wa saara was xii Cheikh Bamba du seen mappanoo du seen maas na ngeen jàng mbindam mi borom aras maas ka gétti waa Fass mooy kan ku nekkoon Fass si Amadou Tidiane Chérif ma fa nekkoon moo tax wax na feneen lu yéeme lu gën a xoromu sax dane sëñ Tuba amul maas sa kenn waru koo raas kemam amul Fass sakkaa fi Bamba les représentants mooy ñi fi toog wutu ko fi sëñ Tuba boo demee ba Fass ga Ahmad Tidiane Chérif dëkk sëñ Tuba du moroomam kon ñu ko fi représenté nu mu doone seen morom sëñ Tuba ne kudul yàlla maa la féete kaw Cheikh Ahmadou Bamba tiim ngir melow wi ko suñu borom jagle moom moo fi nekk may faj soxla yeeg boroom na am mu amag ak yaa wax naa ko fii ay at géej gii yàlla defaru ko pour nit ñi suuf si mooy dëkkuwaayu nit ñi ku wane karaama ci géej gi fekk nga ci jën yi maam di mut géej amub dëkk ku wane karaama ci géej gi fekk nga ci jën yi maam géej amub yàlla defaru ko pour nit ñi suuf si mooy dëkkuwaayu nit ñi ku wane karaama ci géej gi fekk nga ci jën yi nga ci jën yi karaama boo ko bëggee wane dëgg dangay ngay fexe ba mel ni yoon ci yàlla Muhammad kon kuy song da ngay song keneen ku du sëñ bi ndax boo ko songee gàccaa lay dal ndax benn boo nee sëñ Tuubaa julli géej gi jën yi jën yi ñu kii gàcce gi lay dal mooy boo noppee doo yëg yow genn tefes gu sa maam julli boo daaneelee rek da nga ne moom comme moom jën yi Sëñ Tuubaa léegi euh, durum leen nit ñi moom ba raw leen amul leen luy nuru julli déedéet nit nit ci seen bopp gannaaw ndar lañu waroon a jullee daw julliwul mu julli fa léegi kon na def na bokk ak jën yi ay melokaan <laughs> léegi <laughs> te jën ñi tax Sëñ Tuubaa wuteeg moom Sëñ Tuubaa kàbbar ca boucher delluwaat ca gaal ga daa julli delluwaat ñibbi si waat Tuubaa te jën moom bu génnee géej kon xam nga bokkut ak moom waaye na ku mën a def lu jënd def def lu ñu defut ba noppi def lu jëndi defit yow jàmbaar nga ku ku weddi da nga fexe def la lam def loolu mooy melo bi yàlla jagal Sëñ Tuubaa gis nga te Sëñ Tuubaa jàppewu ko xar baax te bu doon xar baax it ko mën na xawaay wi ko yàq fii ka min harujon ala xayra ba xaalim ba la maa rakiba baax gis nga ku am koo tëgg tëggal gis nga ñun touché wuñ benn nit mais suñ jaloore kilifa kenn mënu ma ko tee bakk Sëñ Tuubaa dañu koy bakk di ko kañ ko jëf waaw te abdu ñu mbubum ko

kon nañ sëñ Tuubaa mii ku mu ak ni ko yàlla def amal xol bu féex te xool lam la ñaanal ak nam la mel na ji jamihal muslimin wal muslimaat ay waay xoola kii ni mu baaxe irham jamihal xalq xoola kii ni mu baaxe wax fi li kulli mu'minin wa mu'mina xoola kii ni mu baaxe melo wu nekk ku ko mënul boo amee sa waxi bopp waxal boo ko mënul noppil loolu mooy yëf mm-hmm. waaye coow li moom jëru ko ku ne xam na kala mënta xeexuleen sëñ Tuubaa fi waxoon ne yetti fopp yi Ahmadou ci man ku moom maa man ci géej gi fopp maa man ci jéeri ji fopp maa man yowmal xiyaam gënu jëm fopp ba booba loola man nga koo tàmbalee xam fi li ñuy xëy di suul ci dëkkam bi suulu ñu kenn ci ku ne toll te yaakaar ko rek te yaakaar jooju du tas bu doon làmb la it ginnaaw adduna nungu nañ ko installé ba lu ne programme nañ ko bu ku ci jiitu ñu ne jàmbaar nga ca yàlla ne ca kanam waroon nañ koo seetaat ci mbirum sëñ Tuubaa mi kon waxtaane nit ñi mën koo dégg bu baax xam loolu yàlla may na ko it fu jaar bari na tey jii béréb yoo xam ne ku fa jaar bu ñu koy nettaliwaat dañ dañ koy tëb sëñ Tuubaa képp ngay tàmbalee béréb bu mu jaar ñu di ko màggal di ko fàttali ko murid ya di woote bu tubaab bi xamoon tey benn virgule nii adduna bi mel tàng xol yi ne ci réew meeg ñiy ruubeeg ñi sëñ Tuubaa déranger bu ñu amoon benn virgule boobu tubaab wax lu ñaaw ci sëñ Tuubaa tamit dëgg nee nañ ko fang ci adduna publier waaye loolu moom faat na salim min al afati jumlatiha ku mënta jël suuf si la ci kaw wàcc asamaan asaman suuf ku mënul lool mënoo gàkkal sëñ Tuubaa kenn mënul loolu kon loolu doy na ci fii adduna bi toll ndox ndokk sëñ Tuubaa ñun ñëpp dañ ko ameel cant te ku dul sëñ Tuubaa kat am nga programme boobu boo sañoon bu la nit ñi dee tagg sax yaa baax yaa ngi yëkki sa bopp loo def loo bañ mu génn ni ngay côté sa téléphone ba bañ ko ko laal wuyoo woote rek jëlul côté yaa ca tabbal looy bañ koo gis noonu la leneen mel gaa yee ngeen melow ñaaw woow mu ne woon fàng ci mbedd mi da nga seen kun daan te kenn dutu lu nuyu sëñ bi nag moom jeexal noonu ak sàppee yam ku neex gëstul te wax demal ci adduna bi foo dem wëral ci àdduna bi foo dem sëñ Tuubaa morom ngay gis loolu nag ku am lu mel noonu war ngaa war ngaa xam li nga am lu mu doon nga jàpp ko bu baax dañ ko boole dara loolu la nu yàlla dimbalee ci tawfeex jooju bu ñuy nettali histoire am it buñ ca am benn complexe ci wax sëñ Tuuba ci diw comprendre ak diw bañ comprendre yàlla yëmalewut te lu tolloo du fi am te léegi-léegi nga dégg ku ne lépp benn la ba noppi te moom rakki boppam jubawut ak moom baa ay magam ku sa ñaari soxla jubawut doo rek lem pénc sëñ Tuuba xanaa ko lu xew lu xew ci àdduna bi léegi-léegi ma dégg sax ci yoon yu koy àll naan waaw da ngeen di taggale waaye dañoo war a bennoo te moom mi koy wax am na rakkam yu ko dul nuyu am na mooy magam yu dul nuyu sëñ Tuubaa mooy sëñ Tuubaa dafa beru ne kon nag ah ñii yàlla nattoo ñuy wax daal attaques yi bari na coow yi bari na mais ay ree rek la la war a def sax ndax ginnaaw ñi lay neexal ñoo ëpp ñi lay saaga saaga yi noonu ku la saaga ngir sëñ Tuubaa rek gañe nga ko fekkee ne sëñ bi dafa julli ci géej nga ne léegi loolu karaamay jën la moom moom la fi ko ko waxoon daaw xaw ma daaw yooyu yooyu mu garaw gis nga ni ko xale yi tontoo <laughs> karaam sëñ bi ku koy bañ ba tax xar baax yi ko yàlla jagleen nga di ko jéem a soppi kon bu ko kenn complexé pour waxtaane ko bu ne julli géej gi ñii ne dañ koy waxal sëñ bi waaye def doo xam sax li xew ah mais nag loolu la parce que comme amoo amoo amoo loo teg te benn murit nun ba ba nii dee li sëñ Tuubaa def mënuñu ko jeexal moom nun du ñàkk tem moom buñ xamul dara lu ñu wax ñëw naan sëñ Tuubaa fi gën daama fi man daama fi raw ba ñibbi lim bi ni mënu ko jeexal yow nag bu fekkee li nga tàmbali day jeex xonnatu rek nga ciy desee sëñ bi julliwut ci géej gi bu ci julliwut lu sa <laughs> léegi ginaaw dañ ko ko sosal baax na est-ce que yaa ñëw gëstu gëstu si ko ba xam dañ ko ko sosal wala sosaluñ ko ko loolu lépp mooy ñàkk pexe mooy ñàkk xalaat moo tax kuy kuy waxtaan ku nekk lu sëñ bi def nga gëstu ko mu wóor bu ci complexe ci nettali ko bu ci faale kenn ndax bu ca kenn meree fukka ngi lay wër ñi yor bi oto ñi yor kër ñi yor nangam ngir bëgg laa gis ba jox la affrontement nag ku ko ragal ci yoonu Sëñ Tuubaa yu bàyyee boo ko noppalu jéem a dem tëddi noppalu day gën a tar nag ne des na sax bàyyee boobu li ci dëkku Daaru Musi ngeen jéem a lijjanti ji ay cartouche di ko ŋàppale ndax des nañu di leen kar ñii tàngu xol yi naan deful dara kuñ ci jàkku dana la def dara waaye ba ngeen xam ko waaye sëñ bi moom daan gim daan ci làmb ji dafa leer benn naar di nee na ko xawaariquhu yakfiika minha rujuu ala xayra xaalin bax dama rakibal baxra boo xamul ci sëñ bi dara daal doy na xar baaxam dem gim dem ci géej gi rek ñibbisi waat sëñ Tuubaa nee na ñi nga xam ne ay tijaan lañu buñ leen julleel seenum néew buñ leen jiitab julli leen tuddal seeni doom buñ leen rendil xarum tabaski sëñ Moussa Mbacke la defal ab dénk jox ko kon nag ñooñu bu ñu nekkoon ci dëkk yi seen dëkk gëree na amuñu lu te Alaaji Malik moom ñi nga xam ne moom lañuy ñuy tudd woonu sëñ waru bëgg yi mu dikk mu jox ko gëleem ak sof ne ko joxal ma ko sëñ Tuuba waru bëgg yi fab gëleem gi ak sof wéet ko sëñ Tuuba ba mu dikkee wax ko ko ne ko alaaji Malick moo yónni mu ne ko ana ana Malick mu ne ko mangam mu ne ko boo demee neel Malick na bàyyi rootum guddi neel Malick na bàyyi rootum guddi ba sëñ Maodo bëggee dellu wax ko alaaji Malick teguñu ci lu matu weer alaaji Malick faatu bañ ca tegee loo xam ne li mat te ñeent fukki guddi sëñ Maodo bëgg yi tëdd gént nag gis alaaji Malick alaaji malik ay sax ngi ko sam bala yaram wa kapp di ko watwate maa ngi koy fekkee mu ne ko xanaa kii du malik si mu ne ko ah man de mbiru buggee damaa defe woon ne ma la wanee gannaaw maa tirim demal demal mi sëñ Tuubaa mu tirim mu ah, waaw sax yi la yoo loolu mu ne ko ruu yi nga xam ne waroon nañoo dem ci sëñ Touba te man ma tey leen ba demuñu ci ruu yooyu ñoo may woote fii mu ne waaye demal ci sëñ Touba ni ko dama dund. gi dellu jóge Tiwaawan dem wax dem fa sëñ Touba ba mu àgsi fi sëñ Touba sëñ Touba da ko gàttal daa di rey tàppante moom parce waxu ko dara teral ko ba mu dem nag marubu gi génn ba ci buntu kër ba mu fàttali ko nag. gént gi mu géntoon waññeer bi ko nag dellu si ci sëñ Tuubaa bi mu dikkee ba yéese jub sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daal di mel na dafa am àll daal di ko ni ko mur bu laag si kookee nga xam ne moom nga géntoon mu yónni la ci man la mu wax dégg naa ko li nga bi mu dikkee ba nga ko fàttee man fàttewul demal ne ko dinaa ko dégg kon nag sëñ Tuubaa rek kay waaj mm-hmm. sëñ Tuubaa rek kay waaj kon nag nañ mooy nga dellu ba yeneen jamono mu ni mënatul dellu dal di ne ana alaji Malick booba Maodo sax ajeegul Malick Faa Wàdd lañ koy wax mu ni ko ndax mi ngi gaaya alaji daam ni ko déedéet léegi mi ngi ngàggu ci lépp fii ci kaw Dagana nangami kilomètre diggante ak Dagana sorewul à peu près sept wala yu demee maam fa watte yaayu alaji moo fa am tool ñu koy wax toolu jéeri bu nawet jotee fa la ñuy naweti bu noor jotee wuti ci ci gaaya ngas nag cap tool ba teen tudde ko ngàmbu ci le li ma trompé nag moo di ngàmbu ci le lan lañ signifié moom laa laajul mag mais teen ba daal moo tudd ngam ci li alaaji daam ni ko foofa la Maodo nekk mun lu mu delloo kon du yóbbaale dara na dem ci Aji Malick pour poursuivre du Tijaani moom Sëriñ Bamba bu ñu dikkee keroog di bésu àllarba alaaji daam takkal ko naaga naaga mooy jëleen bu jigéen keroog Sëriñ Bamba la mu fal moo di comme palette ruum baxar ruum wala am turki dara am ca dara am ca kaala gannaaw bi mu jullee tisbaar ba ne tuuti ca la war naaga ga ànd ak juróom benn taalibeem yi mu àndal yi mu àndaloon dikk wax na nit ñi kenn ka Cheikh Ibrahima la mais juróom ya xawma leen ñu jëm ci ngàbb ci def fekk ci Seydil Hadji Malick bi ñu dikkee ba ngàggu tili daje na takkusaan jaa ngi rëcc maam Paa Wàdd moo dogale Sëriñ Bàmba ci gëneel yi ci buntu kër gi fii la kër Sëriñ mu ne ko waaw moo man day kanam laa moom laa soxla woon maam Paa Wàdd tey ci notu gëneel bi muy yëpp Sëriñ Bàmba wàcc mu jëlal ko bagaasam dugalal ko ci néegu Alaaji Maalik fekk alaji malik booba ma nga ca bett tool ba am fa ay fan def fa benn mbaar di def xalwa ci boroomam maam fa wadd gannaaw bi mu ko installé ba noppi mu wax alaji malik saar alaji malik saar moo jur sama yaay moom la alaji malik mayoon taawam ñu taawloo sama yaay alaji malik saar boobu mooy magum daara ja sama baay boobu ma nga fay jàng toll ci géej waaw sama yaay ci des lu mu niru lool booba sama baay ma nga fay jàng war a toll ci iqara sama magu bàyyi bii ma nekk li affaire bi mi ngi toll ci yaasin wal quraan al hakim maam fa wàdd ni alaaji Malick Sarr moom mii magu daara ji demal suñ ko ne dikk na xaw ma lu muy def ci àll bi am na gan ci kër maam El Hadj Malick Sarr dem ba tolloog mbaaru Maodo bi ci bopp tool bi dal di xàttameku ko kooku mu mu ne ko lan mu ne ko sama ndey nee nga ñibbi su kër ga ndax am nga gan mu ne ko kana mu ne ko ku ñuy wax Mor Bambala di sant Mbàkke mu ne ko ah, kooku sama mbokk kon maa ngi ñëw danaa àggal bu jant bi soyee bu jant bi soyee Maodo ñibbi si ñu ñibbi fekk Sëriñ Bamba ci néeg bi ñu songoo ñoom ñaar Sëriñ Bamba nit la woon ku tuuti Alaji Malik ku am taxawaay la woon ñu dal di kasante doonu ci seen biiru bokk ndax lañu bokk ñoom ñaar moo di maa aram Mbàkke dafa am ñaari doom ku ñuy wax Balla Aysa di góor am ku ñuy wax Mati Mbàkke di jigéen moo jur Mor Anta Sali mu jur Sëriñ Bamba Mati Mbàkke moo jur Demba Bunna mu jur Maam Ousmane mu jur Seydil Hadji am na nag ñuy jaawale defe Mati Mbàkke bàyyi Seydil ma Maam Ousmane la jur déedéet Mati Mbàkke Demba Bunna la jur Demba Bunna jur Maam Ousmane ndax Maam Ousmane moomu Demba la tuddoon mais yaa nga tudd Xureeja subloo daañuy wax dem ba xude jal dem ba métti fàtte ñun loolu lañu bokk li nga xamante ni moo dox guddi alxames boobu fanaan na ko ak Sëriñ Bamba bët set ci alxames ñuy yendu fanaan bët set ci aljuma ñuy yendu ba bu ñu jullee tàkkusaan ndono si Seydil Hadji Malick ni ko léegi nag ngan ñett fan wax ma lan mooy sa yoon loolu tax a jóg sëriñ Bamba ni ko sama mm. doon dem gànnaar di ñu ci wérdu xaadir ñu ni yoon waa yàqu na ba yàlla rek laay wuti te yàlla ji nga amee ni nga ci téye bu ma ci téye am dopp googu danaa ci mel ni nga ci mel ma bëggoon nga jox ma wérdu salaatul faati Seydi Laaj Malik ni ko moomu ma tariixa bi de salaatul faati moomu ma ko dañ ma ko jox te kama ko jox moomu ko kooku dañ ko ko jox te ko ko jox moomu Cheikh na Ahmed Tidiane moo ko joxe te moomul tarixa bi def ci muqaddam bu jëkk rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jox te yonente bi joxu ko ko ci plaisir am yàllaa ko ko jox pour sauver mbindeef yi waaye nag daf ko boolee ci sart yoo xam ni ku ca mooy benn kat gannaaw ba dugg nga ci boo ci mooyee benn rek mu dal ci kaso sëriñ Bàmba ne ko luy sart ya Seydi Laaji Malik génne rimaaq bi Cheikh Oumar taalif ci tarixa pour béy génne paas ci sart yi nekk ñu ko am jàngal door di soxna sëñ Bamba liir ba àggal ni ko bu dee lii man dal di fàll Seydi El Hadji Malick la ko Seydi El Hadji Malick may ko salaatul fatiha ba àggal joxanteeg moom la ko muy def ak moom mu bàyyi ak mu téye jàng li mu li muy jàng ba àggal bi ñu roccante seen loxo la sëñ Bamba jëkk wax ci làmmiñam mooy alhamdulillahi alladi axrajani min adulumati ila nuuri loolu mooy maa ngi sant yàlla mi ma jëlee ci lëndëm gi ma nekkoon dugal ma ci leer bi foofu sëriñ Bamba téere boobu ko Seydi El Hadji Malick joppoon am na keroog benn bayit bu mu ca def nee na waman yurid nayla anwaarin yusarru biha fala yufaariq rimaha cheikhina umara loolu mooy kaddu bi am leer ci yàlla gula fégal dootul teqale ko daa imat nee na bul teqale ko ak rimaaxu Cheikh Omar bii mu taalif ku takkoog moom di nga leer yàlla boo xam ne dana la convenir ci lu mu mën a la mu fanaan fa bët ci samedi mu tàggoo ca yoor yoor sama bopp El Hadj Umar Wele nee na keroog def nañu lu ma xam lan la ba léegi nee na ndax gas nañu benn pax ba mu tolloog sen conco nee na ñu bokk ci dugal seen loxo ñoom ñaar di fab suuf si nag di suul di génne seen loxo di suul di suul di suul di suul ba pax mi fees ñu jóg fëgg seen loxo dem nee na loolu xaw ma lan la ba léegi. sëñ ba mbat ba ci yor-yor bi Maodo gunge ba ca altine jala Maodo soog a am na histoire yu ci xew waaye li ñu tax a jóg dafa xaw a gudd tuuti moo di li tax la mais histoire yi kéemaan lañu Seydi El Hadji Malick rek mu dikk moom Serigne Bamba Ndar fekk fa Serigne bu ñu wax As Camara As Camara nekkoon na di Serigne Lasraar xaajur la woon amoon barke lool mu jël ci moom wér du xaajur li ko El Hadji joxoon xaaj nag wérdu xaadir bi ko askamara jox xaaj wérdu bi ko alaj jox boole ñaari xaaj yi fase ko muy yoonu murit diggante boobu gisewu ci Seydi Laaji Malik gisewuñu ci nag di loolu gisewuñu ci gisewuñu ci gisewuñu ci ba jàpp ñaari jàpp yi ñu ko jëkk a jàpp te yóbbu ko gànnaar te ñu naan dafa demoon gànnaar du woon dem tubaab bee ko dénkaane woon ca gànnaar bii place bu ñuy wax Tijib si la bi ci def place bu ñuy wax Refo la Refo samay tooli maam la man mais bi ci nekk def bii def na fa deux cent bi ci def def na fa trois cent soog a jàpp mu dem Gabon avant ñu koy jàpp nag ci la gisee Seydi Laaji Malick ca Njaar nde benn bés sama Umar Wele nee na noo ngi ba ngi doon jàngal gannaaw tàkkutaan nee na ñu jékki-jékki ñu jékki-jékki seen luy niroog xare fas yu bare lool nit ñu bare lool pënd bu bare lool nee na Maodo ñu bii lan la nee na ñu ah, fii de xamuñu lan la nee na tuuti ñaari naaru góor avancé si lal bi cëppeelu di ci jox Maodo loxo ni ko sëñ ba lay mu ni sëñ ban ñu ni sëñ Touba mu ni kuy sëñ Touba amul ko sëñ Bàmba wala kuy sëriñ Bàmba moom Bàmba Alaaji Umar wele ne mani ko moor Bàmba mu ne ah moom moom kañ la fi am yooyu tur nee na daal di ñëpp sëriñ Bàmba waa ku dikk ba dikk jox sëñ El Hadj Malick loxo nee na Maodo jox ko loxo ko lii mu bàyyi ko fi mu taxaw Maodo xib bi ko katamam ni ko nii puus ko ba mu xijji diggante ak nit ñi Maodo ni ko waaw Mor Bamba lii lan la mu ni ko nit ñi mu ne ko nit ñan mu ni ko taalibe mu ni ko taalibe yi kan mu ni ko samay taalibe mu ni ko luñ la toppee mu dañuy barkeelu mu ni ko ci lu ñuy barkeelu nee na mu ni ko ah xanaa neen nga dañuy barkeelu ci man alaji malik ni ko lu nekk yow sëriñ teg mu ni ko àggal suuf mu àgg suuf mu ni ko Mor Bamba lii ma lay bëgg a wax su ma la ko waxul bi ëllëg mu daje ca kanamu ñenu boole woon mbokk bi ca àllaaxira mu ni ma lu tax gàgganti woo ko woon kon danaa rus kon nag danaa la ko wax boo defee baax na boo deful baax na Mor Bamba Mor Bamba addina bu jëkk cagala woon jigéen bu amul jëkkër góor bu ko mës a bëgg sañ nga caa dem mu ni ko léegi nag am na jëkkër te jëkkër bare na doole lool te fiir na lool ku mu yëg ni bëgg nga ndaw si ni ngi sa kaw te mooy kan mooy tubaab bi wattandikul sa bopp lii nga def du dëgg du yoon Mor Bamba maa mag fuuf loo gis lu ma gisul woon waaye wolof kumpa lay jaamu jaamuwul yàlla bu ñu la xasee tudde sëriñ wala ñu tudde la leneen borom xam dugg ci biir ne tëg ko daañu la yéege maqaama boo àggul kon nag da ngay jégg nga defi tool liggéey nga tàllal téere bi jàngale bu ko defee naafeq yi dem li ci dëgg yi def ci yow waaye boo ko deful daañ la dugal kàmb koo xam ni borom ak réew mi dana dal ci sa kaw te bu boobaa kenn du ci man dara lii nag maa ngi la ko boo ko defee baax na boo ko deful baax mu ne ko sàllaw bu ma demee danaa def ni ko wax mu ne ah, ma toog tey mu ne mu ne ko lii nga ma fekk may def moom lay def ci ngoon bi suba si dama may bay nit yi dëgg doog na fi nekk waaye nit yi caaxaan nekk yow nag nit yi caaxaan yi ànd ak yow lii du dëgg ba ko sëriñ Bamba dem loola bisu talaata la talaata talaata ba ja dellu see samba fa lay juma wele ne ñaari naaru góor ni dër ni ko jàpp ne ñu sëñ moo doon kii sëriñ bi sama papa laaj Mor wele ne ma ne ko Mor Ba mu ne ah cur ci jàmm ku ko jàpp tuuti tubaab mu ne ana Masamba Mbacke ñu ni ko ma nga ko mu ne jàpp nañ ko mu ne déedéet ana Cheikh Abdou ñu ni ko nekk ko mu ne jàpp nañ ko mu ne déedéet mu lim doomu bàyyi yëpp ndax jàpp nañ ci kenn ñu ne déedéet mu ne cur ci jàmm man Malick de ku ma fekkoon sama mbooloo mi ko duma jàpp bala nga maa jàpp daal fekk ci mbaaxu ñëpp foog a am ci man. ah waaye nag waxoon naa ko na nag waxoon naa ko waaye baax na daal di ne pat wokku ca wokku ca ba ñuy yóbbu Serigne Bamba Gabon gannaaw bi ñu ko yóbboo Gabon ba mu am cinq ans Seydi Laaji Malick soog a jóg am na benn tubaab bu nekkoon njaareel commandant cercle ba boobu jamono ñu koy wax commandant Théonier Théonier bëggoon na Seydou El Hadj Malick bët boo xam ne nit ñi tuumaal nañ ko sax ci tuugoon na waaye nag kumpa la El Hadj Malick ko kenn te teewoo ne am na kooku waaye nag bëgg ci Maodo comme que nekk na xaritu El Hadj Malick nag El Hadj Malick jóge ci dem njaareem ni ko sama jàpp booba ba léegi yóbbu ko ci àll bi day sa borom ndar waxtaan ci ak moom mooy gouverneur du Sénégal yaakaar naa ni yaakaar naa ni yaakaar naa ni buñ ci waxtaanee ak moom te fekk yaa waxtaan ak moom direct li nga bëgg dana la ko dana la ko ci defal ñu joxante rendez-vous daje Saint-Louis ba ñu daje Saint-Louis ñu ànd dem ci gouverneur du Sénégal bi ñu demee ci gouverneur du Sénégal waxtaan ak moom gouverneur du Sénégal wan Hadj Malick ni ko dana waxante ak gouverneur général pour ñu waxtaan ak ministre de la France d'outre-mer pour ñu toppatoo ñu ko waaye yaakaar naa agam su bëgg-bëgg la te wax nañu leen ko rek li nga bëgg daañu ko def dana bon ñu toog à peu près deux mois pour moi taqdiran euh, borom ndar c'est-à-dire Sénégal waxte woñel ni ko na dellu si yaag El Hadji dellu si mu won ko ni ko may nañu la bato bu jëkk a jóg daañ ko ca def mu dikk Sénégal bi ñu jëkkee ba am bato jël ko dugal ko ci biir bato bi lañu la gouverneur du Sénégal signalé El Hadj Malick ni ko kat sa waaja dugal nañ ko ci bato ba mi ngi dikk seulement fii la ñu la koy libéré ci ndar El Hadj Malick dematul toog ndar dama bëggoon bu mu wàcc mukk bëccëg ndax bu wàccee bëccëg mën na juraat yeneen histoire ndax ñu mu fi bàyyi du ñuy nit bi ñuy jullee ba àggal fekk na am na ci ñenn murit yi mu dégg ni sëriñ bi ñëw na ñu commencé soow ci biir dëkk gouverneur du Sénégal wax Alaaji ni ko dégg nga coow li mu ne ko bu ma leen déglul déglu coow keroog Alaaji moo fas jàllaabeem ak tuuti wàññi ko yëpp ba mu war a tolloog moom mu bokk ko dikk ànd ak commandant teewal yi ab gouverneur du Sénégal ci gannaaw timis ñu dikk dugg ci biir bato bi ba dikk ci néeg bi mu nekk ñu ubbi ko biñ ko ubbee sëriñ bi ñu génne ko fekk mu ñu ko solal kiloot ak xaw ma nu mu tuddee sort ak si euh, bu gàtt waaw c'est ça mu def tànki neen bët bi sëq lool mu ñaaw mu ñaaw lool kanam gi ràpp lool xaaju Malick ni ko astafurlah gouverneur ci loxo bi dal di ne El Hadj Malick am mu jox ko El Hadj Malick ci tiwu jarab bi mu ne fii gouverneur ni ko mangoo lu mu ni ko ñam wi jëkk dugg ci suma biir kër El Hadj lañ koy soppi El Hadj Malick gees ñu El Hadj daam wax ko maam Roqaye yaayu Cheikh si dew ko maam Fatou Cissé sama maam di taawu maam Roqaye ak El Hadj ma nga fa maam Roqay Njaay woo ko ni ko na dal di jóg ñu seeti lu ñu toggalee gan bi mu ànd ak sunu benn boobu kër bu ñuy wax xëtt seen aminta seen ñoo ànd dugg biir ndar te mu jël dikk toggal ko ceebu jën ci guddi yi lu ceeb bi pare sama bàyyi alaji Umar Wele mii moo ko yenu ànd ak góor gu ñuy wax Abdourahim moo doon yëlimaani jumaa ja yëlimaanu waxtu yi juróom Abdourahim Jang moom moom la ñu mayoon Xadi Jang ni baane ni Mor Masamba Jéeri Jang jur ñoom ñaar ñooñu Abdourahim ak El Hadj Umar Wele ñoo yanu ñam wa yóbbu ko kër El Hadj Daar ba ñu demee nee na bi ñu yéegee ba ci escalier bu mujj noo ngi fekk benn murit bu bóos di xiiru comme xaj ñu lii lan xajul sëriñ bi te nañu tudd jox sëriñ bi ñam bi toog ci bunt bi di xaar mu desal pour lu lekk ci taali bi mu lekk ba àggal woonu lu jël ndab yi mu ne bu ngeen demee ngeen gërëmal ma góor ga bu baax bët set Alaaji Malick dem ci gouverneur ànd ak kiwa ji léegi su ak jàkka mu wax ko témoigné témoigné wax ko Alaaji Malik Alaaji Malik ni ko daggal tool daggal ko fu mu def jàkka ndax ndongo sañ na loolu sañ na am jàkka sañ na am tol mu daggal ko fii mu def jumaay njaareen ndigalal Seydi Alaaji Malik lañ la ko commandant témoigné daggal après ñuy dem di law ba fii mu def Touba ñu ñu tudde Touba la ak la ñu nekk ci noonu nekk ci noonu mu ba Cheikh El Hadj Malick génn àddina keroog bi mu génnee àddina le vingt sept juin mille neuf cent vingt deux mu tàgge ko témoigné témoigné woo Moodu Moustapha Mbacké ñu ko damay dem ci waaw parce que El Hadj Malick ni mu génn na àddina mu ne ko ah, mu répététéw ñu daal di koy bind yàlla ni ko jox maa ngi dem ba dellu ba ñu toogee toog toog toog toog toog toog toog ba Sëriñ Bamba génn at yi kon mu ni commandant teewoon ne sama bàyyi génn na àddina ci kaw mu génn àddina nag ay fan kenn yëgul ni génn na àddina ba mu soppi mu sëriñ ban ci Siriyaane bi mu nekkoon te waa ji nekkoon ci bunt bi mu ngi déglu attaque bi waa ji nekk ci bunt bi muy fab satala bi ko ci defal ndox di teg ci place bunt bi bu dikkee làmbaat bi ndox mu dem defaat ci ndox teg am na trois jours yoo xam ne bu dikkee làmb satala toujours mu diir Modou Moustapha Mbacké dikk mu waa ji kañ la a mu ne ko ñetti fan a yii gisu ko mu ne ko jëlul ndox mi mu ne ko ndox mi toujours fa mu nekkoon la nekk kala <laughs> yaa taxawoon fii ci koni saabal bi ni ma ci jaadu kii la ñu ci ndigaale waaye lu mu la ndikk fii ma suñ nga loolu mënul nekk mais doxal na dem ma saytu ko ba xam loolu dëgg loolu dëgg ànd ak moom ba dikk mu ne ko kon nañ ko fi tëj dem ban gisee mu dem fekk kilifa service bi seen ànd ak moom bi ñu dikkee yoon yii lañ ko doon xoole di ko seet ko seet di seet dooni daal anafee moom mais ku ko fi yëngal dana def réew mi feebar boo xam ni du ko jar fii lañ koy mën a gas pour wa illaa rek musiba dana am ci réew ñaari galère la ñu gas ci saatu filière bi ba mu xóot ñu ba max siliyaan bi ak peel bi mu daanu ci biir ñu fab ndox wis ko ko yéene ko ko càng suul ko foofu ndax Modou Moustapha jël la préparé camion bu mu def yu mu def jaar bu mu defal yooyu yóbbu Touba gële def fa ñu ni ay xeer la ñu ni ay génk la ko nga dellu ci nag yónnee ci Cheikh Anta ñoom ni leen sama génn na àddina ba yóbbu naa ko Touba Cheikh Anta ne c'est pas vrai sama mag mu ji mën a tuddee dañu yóbbu ko Touba te yóbbu ma ko loolu mënul nekk fekk témoigné moo ko wax koo affaire nag daw di ko danaa la yow Modou Moustapha Mbacké def bu ñuy jaay kër gi sama armeelu mag bi lëggéey ko ba ñu xam ni la nekk lee ay fet la moo tax keroog miraas ma deux la a teg pour kër gu mag boobu ci njariñ Cheikh Anta ni cinq mille franc kooku cinq mille lëf la ama dé euh, bu mu tegee six mille franc Modou Moustapha tul dem mu dem téye ci loxo téwoñe ba fale ñu ko dama bëggoon nga wax sama papa Cheikh Anta mu suturaal ma ndax lii bu amee rek sama sag dana sag ci téwoñe woo Cheikh Anta arrangé leen ñoom ñaar te jataay mu ne ko nag budul konte yow téwoñe kon danaa jënd kër gi bu doon dem ba fukki junni génne sama armée lu mag ji liggéey ko waaye nag rus naa la dal di bàyyi moo dugul safaa nag bor booba war ko bu fay sëñ am na ba léegi ci jaar yëpp néeg boo xam ne ko dugg soo ko lépp Sëriñ Bamba nekk mais Touba dara nekk ko moo di li am yii ñuy sow euh, waaye euh, ñuy wax ci pour pour fii exactement lettre ba man liir naa ko man ñaari lettre la yoo xam ne Serigne Bamba ko bind ci loxol boppam te exposé nañu ca place ba ci jumaa ji kartale Alaaji Maalik ci yëf yi bon ci côté sa côté gauche boo jubloo nii ci jumaa ji def nañ ko kartale place ak Serigne Bamba bi ñëpp ak euh, Bouna Alboury ñëpp la bi fii ñu def mu Alaaji Malick nag ci suuf benn leetara nga fa bu Sëriñ Bamba bind ci loxoom maag Alaaji Siise jinde noo taxaw di ko liir noo ànd ak ku ñuy wax Assane Mbaye ci otoom la booba Sëriñ Bamba ko bind muy arab mu bind ko gouverneur du Sénégal di ko ñaan autorisation pour construire jumaay Njaaréem booba ci suuf porte Alaaji Malick loolaa ca ne liir naa ko bu mu jeex tàkk gouverneur Sénégal la bind lettre bi ko ñaan autorisation pour construire jumaay njaareen ji d'ailleurs lettre ba si bi ji nga sotti na ko sax ci loxoom lettre bi jàkkaarloog moom nekk ci wetu Sëriñ Bamba nekk ak fële booba Sëriñ Bamba ko bindoon gouverneur du Sénégal di ko tuubal ci ko woote bu mu woote woon te Sëriñ bàmba jotul ak dem xëy na ngànt jàpp na ko léegi xëy na am na lu mu ci dégg wala ragal na la amoon amaat mu bind borom ndar lettre boobu ni gouverneur du Sénégal di ko wax ni ko ñàkk wuy si bi du dara dafa fekk dama am empêchement waaye maa ngi lay xamal ni man sama yoon nekkul ci dara lu dul sama téere ak sama yàlla lu la waay mën a wax ci àddina lu dul man nitu sunna la sama téere ak sama yàlla rek laa xam loolu ñu ngi koo xam fan nga léegi nag saay-saay si ak rambaat yi danañ la wax lu nekk waaye ku la ko wax nee ko fen nga te it maa ngi lay xamal ni li passé woon lay rëccu te it di la xamal ni mboolem lu ngeen ma defoon ci li passé woon baal naa leen ko léegi nag na leen wóor ne lu yëngooti dootul man sëriñ Bamba ñaari lettre yooyu noonu la te it ku dem nga ñu tax ko bu ci ne moo ko bind bi xat ci yëpp yi nii la demee tamit jébbalu na ci sëriñ Bàmba san la woo xam ni san bi fu mu cosaanu Alaaji ci boppam moo amoon benn taalibe bu ñu wax Amat Saar Yëtu Diin Amat Saar Yëtu Diin muqaddam la woon ci tarixa buur ay sëriñ Bàmba ba mu demee njaareem fekk ko fa sëriñ Bàmba daa iman foo ko fekk kanamam na nga fa amee suuf su nooy ndax dafa am xam-xam bu ñu wax musallatul xasaali yàlla daf ko ko mayoon ay xaatib la boo toogee bu ko rëddee ci suuf rek sa xel dana dëpp ba li mu bëgg moom sëñ Bamba daa ko def naka amat sariyet dem di ko toog ak moom rek mu dal di xaatim xaatim boobu amat sariyet dem dal di génne junni bi boobu dal di ko jox ne ko Alaaji Malik ne moo ko jébbaloo ci yow góor gi Samba Ngotti loolu maa nga toog fële waaye léeg-léeg li ma gis dama jékki-jékki gis sëriñ Bamba ree ba jaaxaar fëgg fëgg ko tànn képp xamoon naa ko de doomi bàyyi ku nekk dikk déyoog moom mu wax la nga ree di ko soow man nii tiyaan nekk seen biir nag waxuñu ma dara nee na ma ne ah naa tey rek loo dégg gannaaw ndéey rek ndéey laa nee na ba ñu jékkee ba ca wàllu bëccëg kenn ci ñoom dama xamatul Samba Mbacké wala Cheikh Anta wala ñu demee noonu tig ni ko waaw euh, Samba Ngosi nee na ma ne ko naam mu ni ma waaw xanaa looy waxati nag ma ne ko ci lan mu ni seen mbër ma jóoru fi na de ma ne kuñ mbër ma mu ne alaaji Malick mu ko jóoru fi lan mu ne ko jébbul si na mu yónnee waaye bi jox ko junni jox ko sëñ bi xanaa nag léegi mën ngaa jébbul wër gi Samba Ngosi ne ma ni ko alaaji Malick bu jébbaloo dafa gis lu ko doy waaye man gisuma lu ma doy dégg nee na ñu jikki coow li dal di siiw ci njaaree góor gu ñuy wax Ibrahima Kandji bàyyi Cheikh Kandji ma ne fa nekk dégg coow li mu étonné leen lool comme ni jamono bii riire léegi góor gu Cheikh Kandji dugg saxaar dikk ci Alaaji Malick ci Tiwaawan nekk li ko dégg-dégg bi Alaaji Malick ni ko man mu ne ko waaw Alaaji Malick mer lool dal di dajale mboolem taalibe yu mag yi ak néegu ndeyam ak néegu baay bi yëpp dal ñu Ibrahima Kañ gi nett li nga wax ba mu nettalee ba àggal Maodo la ngi leen lu ngeen ci xam waalo waalo yi dem ak seen jukko doomu ndar dem ak seen jukko lébu dem ak seen jukko ba àggal góor gi alaji abdou fati ñun ni ko man de ni ma ko gise fii mu ne mu ne ko moo di nga yónnee fa ndaw noppiloo ko ndax ay bokk ngeen te boo toppee sa jukko ba dal ci kaw di nga am yaraan nga alaji malik ni ko wax nga dëgg boobu kàddu day kàddu bu teey la kum ca war a yobal abdou fati ni ko bul yebal sa néegu ndey ne yebal sa néegu bàyyi te bul yebal waalo waalo mu ni ko kuñ ca mën a yebal mu ni ko kenn laa gis mu am teey boo xam ne su ko fa yebal dana dem wax li la bëgg a wax ci fit wa mate na mu ni ko kan mu ni ko Babacar Sall rakk ji bu ñu wax Babacar Sall loxo loxo Babacar Sall loxo yi dafa jiboon ku ko xam ne la waaw waaw kay waaw Euh, góor gi Babacar Sall dikk Alaaji Malick ñu ko dama la bëgg a yónni mu ne ko fan mu ne ko ca Mor Bamba ndax li ma lay wax daa ko wax Alaaji euh, góor gi Babacar Sall jooy ni ko billaay bu doon gaynde it danaa def sama loxo ca baat ya ndegam moom nga bëgg mu ko demal solu ji dikk mu dem solu nee na bi may solu maa ngi yor laaw wéeru duut kuu nee na ma tax ko def ko ci sama pooj nee na ma dikkee Alaaji Malick li dama la bëgg a yónni ca Mor Bamba lii ma lay wax na nga ko wax ba mu jeex parce que boo demee ni ko coow li bare na lool te dara rafet ci te lépp ngi jóge ci wàllam jëm ci sama wàll te ruus naa dal ci kaw ëllëg may dajeeg ñama ñama boole bopp yi te yombal xiyam ñu naan ma lu tax nga def lii waroon nga ko tale boo demee ni ko nag coow li muy bare bare bare bare bare bare war na réfléchir moom war na xalaat li ko na fàttaliku keroog ba mu naan alhamdulilahi alladi axrajani min azulumati ila noori ca nga bukkile ni ko na fàttaliku boobu tàkkusaane alju mais ko na fàttaliku keroog sunu taati siltu ga maag moom ca eh, njaarnde ca tàkkusaan ni ko bu fàttaliko yooyu ñaar ak bind bi ma ko mujj bindal ci téere bu ñu wax Ihmiraar mu ne ko bu fàttalikoo yooyu dana xam ndax man Maalik danaa wëlbati koy jébbalu ci moom wala déet te boo demee ni ko bu fekkoon ci ni may jigéen xool naa jamono bi ba ba jamono bi teg gisuma fi lu dul ku mu wattu Cheikh na Ahmed Tidiane dong mooy góor sëy naa ak moom mu ni ko rawatina bi nga xamante ne jamono bi ay jigéen rek a fi nekk benn góor nekk tarixa Tidiane dong nga fi nekk tarixa góor te maa ngi ci man maa bi ñu ko boo demee ni ko ñetti fuuf maa ko ko def ñu ko maa ko mag fuuf du ma moroom ñu ko maa ko raw fuuf du ma moroom ne ko maa ko ëpp yàlla fuuf yi ñetti fuuf maa ko ko ni ko nag du ma dégg jotee dara lu mu yëpp mu yëngu rek na xam ne man a maa ngi jëm ci kaw yëm bu boobaa du ma ko bàyyil Babacar ndax daa ko wax mu ne ko billaahi si dinaa ko wax Seydi Hadji Malick ba muy bëgg a dem góor gi Abdou Faty ñan ni ko boo demee xam naa ko sama mbokk boo ko joxee loxo bala ngaa bàyyi loxo bi waxal sa soxla ba àggal sinon bu loxo bi wàcc ci suuf rek dootoo xam dara mu ne ko baax ànd góor gi Ibrahima Kane yi ñu dugg section wàcc Thiès jël saxaar wàcc ci Njaaréem góor gi Babacar Sall xëy bëgg a dem góor gi Babacar ngi ni ko déet bul dem bàyyil ma woo tijaan yëpp ñu daje ku ci am fetal ëndi ku am jaasi ëndi ku ku amul mu wuti mboos ñu di ak alimet ñu wër kër gi boo duggee ci biir wax bu dara yëngu rek ñu taal kër gi toog ci bi ku génn ñu rey lay ñu woo taali bi yëpp ñu daje def noonu docteur nag góor gi Babacar Sall sol dàllam dugg ca biir kër bi te Ibrahima Kanji taxaw di jaabante di xool gaañ mu duggee ba ci biir di dugg di dugg ba ak si fu Sëriñ Bàmba toog nit ñaam ko wër ne lu mat nee na fukki nit loolu ñi nga xam ne ñoo fa jóge nee na xuus fu nooy gi ci kanamam ñu defal ko espèce su gisee boo xam ne loxoom rek moo fa xaj li ci def di budee nee ma jox ko loxo jox ma loxo nee na ma ne yëpp tey ci loxo nee na mu ko garab ci loxo mu téye mu xëcc ma xëcc mu xëcc ma xëcc mu xool ma xool mu ni tekk ma fas sama loxo càmmoñ bi téye ko ci ciw jara bi ko sama benn tànk fas bii dugal ko ci sama poos gi sécurité lawreer bi mu ko góor gi dul fen mukk tey jëkkëri góor ñëpp moo ma yónni ci yow alaaji Maalik nee na mu ni ma takallam arabiyati waxal arab takallam bil arabiyati ma ne ko arab langu jàmbur la man wolof la wala yii ma nàmp sax wóorul ma koy yónni di dem di seeti beneen langue te it ci ma yónni ci wolof la ma yónni woon ci wolof laay wax li ñu ni ko nag alaaji Malick ne daal di commencé ni ko alaaji Malick waxee ba mu jeex tàkk nee na nag ni yàlla loxo ba ni ko loo may tontu nga wax ma ko nga dem mu euh, ki la yónni day mat na kilifa sëkk waaye yow mat nga ndaw sëkk nee na ma ne gees ni ko bu ma ko waxati kat mat ndaw a tax ñu yabal ma mu ko waaye boo demee ni ko nit ñee wax waaye man de waxuma dara laa waxoon dara laa waxoon te bala nga fiy jóg daa xam ne waxuma dara nee na ma génn góor gi Ibrahima Sanji bi ma na nga def da nga àggul nee ma ne ko ah kay fii di àggul wax naa lépp nee na mu ni ma nee na mu ñëw jooy daal ñu ko dara xewul mu ko déedéet mu ne ko waay waay suñu jàlloo rek foofu na rek mu ñu bëggee woon amewulu nee na waaye dinu àgg ci kër gi bay waaj a añ rek mu dégg ndënd yi ci biir njaare sëñ bi nee na ku mu dégg te nga wax ci tijaan yi dara daañ la nangam nangam nee na mu jóge ca nag dellu jox ci Maodo contrat bi ak ci waawoon Maodo woo ba mu koy yónni mu kanam nee na mu waxee nag ba ak ci ndënd ñu wax nee Maodo ci laa gisee mu mu ne tey moom benn taalibi tijaan dong ñu seqal tax ñu bàyyi def yëpp waaye sama waay lii la kii affaire de lu la mën a wax wax bi ñu naan dafay jébbali ci moom kan bi assuré bi fii la tàmbali sëñ Ba boobu moo jël ci alaaj maa ngi sa fàttee ca ngam bu ci li voilà man jàpp ma ne kii wax dafa ñàkk respecté Sëriñ Tuubaa déedéet mais dama jàpp ne respecté wu Sëriñ Tuubaa respecté wu Seydi Hadji Malick parce que Seydi Hadji Malick bu demee ba yónni nit di ko jox revolver mooy pistolet kooku yaakaar naa Seydi Hadji Malick ku xam ragal yàllaam ku xam xam-xamam ku xam dignitéem ku xam nitéem ku xam doon gim doon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeru xaqiqa kooku di yónni nit di ko jox revolver pour mu dem ku xam tamit Sëriñ Tuubaa ak xëyba bi nekk ci moom nga xamante ne ni Seydi Ibra Fall ak ñoom gars yi ko wër noonu noonu niñ ko respecté nit du nuyoonteeg moom di xëccanteeg moom ay loxo di def yëf yi ñàkk fayda yooyu ak yeneen yi ko koy askane rek ay ak nangam nangam kon kay damaa defe ne sëñ tubaab bu xamoon musallas ba kum toogal bu rëddee musallas lu mu la wax nga ne ko waaw kon tubaab bi duggal leen la waaw loolu amoon naa ko ci ci ay commentaire daal kon lu mat bàyyi xel la ko yónni nit muy dem ci nit di ko fitnaal wala ngay wax sax ci Seydi Alhaji Malick boo ko respecté doo ko tudd maanaam jëkkëri góor yi wala jëkkëri jigéen ñi déedéet parce que Seydi Alhaji Malick dépassé na foofu jëppa na foofu moom lu mu doon def rek yàlla suñ borom moo ko moo tax mu di ko def am na seede yu seede ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yoo xam ne ñëpp saxal nañ ko ne kenn ku nekk ci ñun ñu nekk Sénégal am na loo def loo xamante ni yaa ngi koy toog naak mag yi Tiwaawoon yeeg mu xaddam yëpp parce que nit ñi tamit bul bàyyi xel ne kenn ku nekk am na looy wax lu ñaaw ci nit daan na leen sama mbokk moomu di Ahmadou Bamba day man El Hadj leen a xamal gis nekk tey ko waxati moom ci ko waxati lu ñaaw jëmee ko ci moom yaa jàpp Malick waaye Malick moom génn ci yow kon loolu lu mat a bàyyi xel Ahmad Tijaani bañ ko ba bindoo woon fa kullu yurdin yuridul muri kullu fa kullu yurdin yuridul muri daal li xadratillahi ila al Jaylaani aw intama li Ahmad Tijaani aw li siwaahum min al aqtaabi iskuluhum xatan ala shawabi léegi nag bu nag bàyyi xel baax bu ñuy commentaire ñu xam ki ñuy waxal kan la ak na ñuy waxee nan la ndax looy wax lu nekk ëllëg da nga ko waxaat ñu ànd ceeg yar daal mais wax ji daal moo jëru woon a wax loolu ala kulli xaay mooy xadis yi ñu ci wax yépp ci ki wax wax ji lay dellu mais amaa ñuy tontu moom du amul problème nan tontoo tontiinu yar rek parce que yàlla suñu borom sax bi mu yónnee Moussa ak Haaruna ci firawna dafa izhaba ila firawna innahu taxa waaye bu ne fa xuulaa lahu qawlan layyinan bu àggee na ngeen wax ak moom ndax li muy saay saay saay saay borom cër la fa xuulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yaxsha kon loolu euh, damay wax ne lu ci lu ci lu ci mat a bàyyi xel la kon nañ ci ànd ak yar waaye nag tontu gi tamit nag doo mën a ferme gi nuyu kenn ne ko noppi ci ndax nangam nangam bu yee fitna yi déedéet ñi war a wax moom faawun wax xanaa kay nanuy waxe kay loolu la ñuy loolu la ñuy seetaat ndax yàlla suñu borom yaakaar naa kenn ëpp ko respect kenn gënu koo ñàkk ko jot ndax kullu yawmin huwa fii sha'nin te daana xëy suba ba jant bi so di xulonteeg Firawna di tontonteeg moom xul goo rek bu dee quatre-vingt-dix na bu dee cent xul xul xul goo gis la bu dee cent la quatre-vingt-dix-neuf yëpp yàlla suñu borom day tontuloo Muhammad sallallahu alayhi wa koy tontuloo ne ko wax leen nangam wax leen nangam wax leen nangam waaw bul wan baat parce que asukootu xelal am na loo xam ne bu ñu ko tuumaalee boo ca noppee boobaa da nga kon nanuy bàyyi xel nanuy tontoo te moytu ci noonoon tegi tamit ak merante yaakaar naa jëru ko ndax lépp ko tegee tax sa taawila ilmiya rek day nekk loo xam ne du am benn tanaaxut ndax suñ tubaab moom noonu lawul kenn kenn te jéggal na ñëpp sax nag waaye nag jéggulu gi nag moo ëpp solo nag jéggulu gi famille ba nga xam ne ñooñu waxoon ko waaw dañ ko jéggul mu daal di jeex bu ko defee ñu jëfandikoo bay di suñ tubaa dafa ne wala tuaadu man raaytum faaw yuxriju laa ilaha illa allah ah, lii rek laa man lu may commentaire nag bu fekkee am na ci benn jumte yàlla in uridu illa al islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala tilka asratun kaamila laa ko bëggoon a def waaye sëñ Jabil moo tax dama ci wàññi ñaari minute bu nekk huit minutes incha allah jazakumullahu maa ngi jégalu gaa yëpp rek a dugg Euh, beneen bi ñëw ci dolli mooy boo ñëwee ci biir waxtaanam yi dafa bëri ay njuumte yu ci am njuumte yoo xamante ne wax bu nekk dafa am tanaqud ak moroomam mooy wax bu nekk day léeg-léeg day wax wax bi bu dee ba ci biir wax bi am wuute ak moroomam te loolu bokkul ak loo xamante ne boroomi xel mën nañ ko nangu ndax nit ki boo toogee sa ruqutam amum xel mu toll ne fabriqué benn histoire nettali ko wala nga jël histoire dolli ca la la nga arrangé nga nettali ko noonu ñi lay déglu tamit am nañ xel mu toll ne danañ xam lii vérité ak li dul vérité fi mu njëkk a juumee mooy attadaqul bi mu def ci euh, diggante ñaari nit yàlla yi waaw ndax comme ni ñu waxee toujours ne yonent bi saa sallam daana wax ne dee leen mooy tandiku def lu kenn mosul def iyaakum wa muhdasatul umuri dee leen mooy ko def lu kenn mosul def xool ñaari nit yàlla nga def ci thème di ko waxtaanee ay nit di la déglu loolu moom kii rek laa mos a mu def ko loolu moom njumte bu mag a mag la euh, beneen bi ci def mooy wax gi mu wax ci sëñ Tuubaa ñëw ci Seydi Alhaji Malick ak fekk na ko mu doon def xalwatu ak yu demee euh, loolu tamit am na ci wax yoo xamante boo ko dégloo da xam ne lii euh, yarul maanaa parce que ku toll ne ak ni mu xamee àqu njaboot naka lay génne ci këram dem ci beneen barab di fa fatu ji te waa këram xamuñ lu mu fay def te dégg nga mu wax ne soxna si nee moom day xaw ma mu ne ak xaw ma lu ko fa ba kon loolu lu ma bàyyi xel la beneen bi ci def ki ñëw nga xam ne dafa doon xool si sëñ ah, Seydi Alhaj Malick bi mu ñëwee nee bi mu xaddami ko Maodo ne ko kooku kan la kon xanaa Maodo dafa fekkoon booba xalwa gi jeex na waaw beneen bi ci def mooy bi mu xaddami ko ba wax ak moom ba wax ko gan nga nekk ca kër ga da ngaa dégg mu ne mu ne ko timis laay pare te yaakaar naa Seydi Hajji Maalik bu nekkee ci kursam amul lenn yitte ju ko mën a tax a dagg kursam googee di wax ak keneen pour loolu ndax yaakaar naa kenn ku ne miin na ne boo nekkee ci sa euh, ci sa werdu sax moo xam werdu tijaan la wala werdu murid la mayuñ la nga wax waxumala ko tolli Seydi Hajji maali fatu ci barab bu mel noonu di fa wéetal borom nekk ci kon kooku ëpp naa di dagg la muy def di wax ak keneen Euh, lu mat a bàyyi xel la wax yi léegi léeg dafay am tanaaqud lool boo xoolee ci biir wax na ne bi Seydi El Hadj Malick jógee ca euh, barab bi mu doon defee xalwatu ñëw ci kër ga euh, dégg nga am na fu mu nettalee mu ne Seydi Serigne Touba radiyallahu anhu wax na ne ku nit ku tuuti la woon xaqiqatan wax tudd ne Seydi El Hadj Malick ku nangam la woon tudd yooyu yëpp ñaare da ngay dégg ci biir wax yi doo xam li mu ciy jublu waaye day jublu ci tuutal lu muy tuutal sëriñ bi la ci jublu ak tuutal la ci jublu waaye foofu tamit bu xamoon dara wala mu am cër ci yàlla dina xam ni rëy ak tuuti wanewul wilaaya rëy ak tuuti moom wanewul wilaaya ci yàlla kon wilaaya nekkul ci rëy ak tuuti euh, yaakaar naa loolu beneen gendeeku la euh, beneen bi ci des mooy dégg nga ci biir wax ji mu wax ne Seydi Alhaaji Malik euh, bi mu toogee ak Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñetti fan ci kër gi dane ko ah, ngan kat ñetti fan la comme niñ koy waxee ne ad-diyaafatu salaasatu ayyaam fa ma'aduha sadaqa Seydi Alaaji Maalik dina am gan gu toll ne ku ko jaral bàyyi xalwatam di wax ak nit jaral ko mu génn fa mu fatu woon foo xam ne ba mu fay jógee ay mbokkam sax yëguñ ko woon ne dem na fa mu toog ak yow yàgg mu naan gan ñett fan la waxal li la fi indi mel ne gan gi dafa xasal ci kër gi Seydi Alaaji Maalik ku ne xam ne cëram ci yàlla du def loolu waaw ak euh, beneen bi des mooy bi mu bëggee jël werd wi ci Seydi Alaaji Maalik comme ni mu ko waxee ak la ca Seydi Alaaji wax ak yépp la ca aju yaakaar naa kooku moom wax ji mooy weddi boppam ndax ñi ñëw ci Seydi Alhaaj Malick jël werd te commentaire yi yëpp amu ci moom bëri na bëri na ba mooy xanaa nit ki buñ la joxe werd bala nga ne alhamdulillahi alladi axrajani min adulumat ila nur xanaa da xanaa da nga jar bu liñ la jox werd wuñ la jox werd goo ko nooy xamee ne génne la ci lëndëm yóbbu la ci leer loolu loo pratiqué gul mënoo koo ko xam parce que oto boo waragul mënoo xam neexinam waaw kon loolu lu mat a bàyyi xel la bay bi mu wax nii tamit ne Serigne Touba boo ko wax euh, du ma weddi ne euh, waxu ko waaye loolu tekkiwul ne tekkiwul ne tey li mu wax am na parce que Serigne Touba radiyallahu ku ne xam ne boo liiree bindam même bu waxee beneen wax boo xamante ne keneen a ko wax sax danaan diw ma wax nangam bañ na ko ba ci ba demee ci Masaalikul Jinaan danaan la képp ko wax ab wax tudd naa turam bu ma nee sama Serigne Ghazali yu laa ci jublu suñu waxee ba wax su ma nee xultu nag mooy danoo wax ba noppi ma am ca waxin kon Seydina euh, Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu mu seedeel nit ci téeréem ne nangam a ngi ci wala nag loolu taxul nag nga jël euh, ne rek jël euh, njuumte ba ko askan si moom ñaareel ba mooy na jàng xissa say Cheikh Omar al Fouti bi nga xam ne moom ribaax ak ñëwam bi mu ñëw Mbàkke Bawal ak seede bi mu seede woon ci ne Serigne Touba dana ñëw ëllëg te moom mooy ki nga xamante ni mooy doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa baatinan yaakaar naa bu jàngi histoire dem ci ak yeneen euh, ko ci nett loo xamante ni lu cay mat sëkk loo xam ne dana ko mën a dana ko mën a mat ab yóbbal ak kii dégloo euh, bu ko defee beneen xissa bu mu nekk li ne ba ñu paree gas nañ benn kàmb dugal ci seen loxo ci ñoom ñaar kooku moom xam naa mënu ko firi parce que loolu xaqiiqa la bu fekkente ne lu am la ndax gisante gi mun na am waaye ñoom ñoo jël biir biir histoire bi timis namas ci yoo xamante ne bokku ci gas pax kooku noonu ñu def loolu loolu xaqiqa la mënu ko firi loolu day tekkee ne ñoom ñaar ci seen àddina doomu aadama mënul dox ci seen diggante benn nit yàlla mënul dox seen diggante saytaane mënul dox seen diggante ñoom ñaar ba ci biir bàmmeel rek moo leen di boole ñu dugg ci biir bàmmeel ba ëllëg ñu génnaat ci biir bàmmeel taxaw ci seen kanam borom kon loolu comme loolu kon loolu xaqiqa la moom li atam di bëri bëri bëri mënul firi loolu waaw li wax ci ne tamit bi ñu ñëwee bi ñu waree fas yooyu noonu ñëw ci sëriñ ci alhaji Malick mu seen leen fas yi di daw après ak la ca Seydi Hadji Malick wax ak koy woowee mu ne kañ fi am tur yooyu yëpp kooku kooku yaakaar naa wax boobu bu ko askanale ci Seydi Hadji que bu fekkente ne wax moo wax ne alhamdulillahi alladi axrajani axrajani min adulumat ila na ko werdi wiñ ko ko ci Seydi Hadji defar na ko kon kooku mbooloo war na ko mën topp waaw kooku mbooloo war na ko mën topp bu dee werdi wi di def nit dara kon na ko mën ku ko bëgg askan la ci ne da doon jël mbooloo ak addina ba ñëw ci nit mu di ko yedd loolu yaakaar naa wax caaxaan mënu ko weesu ndax sëñ a nee na wax bind na ne maa ngi leen di dénk na ngeen njëkkee coono bala ngeen a yaakaar njëriñ nabahtukum maan ala kaddin bada li xabla an ura ridan mu abada beneen bi ci mooy xanaa moom du ñëw ci jël ci weer da ba noppi ëllëg mbooloo wut si ko te amul ndigal ci téye mbooloo ma mu di leen ndax moom sëñ Tuubaa moo bind loo xam ne laa tafaalu say an bi gayri izni fal ismu sartun fi baxti qabul kon loolu yaakaar na euh, ay waxi waxi waxi kenn xamul waxi lan la beneen bi ci des ni ma ko waxee woon sànq mooy ndaw li nga xam ne Seydi El Hadji Malick yónni woon na ko euh, tam wax ko ak euh, li mu wax ne bu bi ko tubaab yi indee mu ne bu nañ ko ko indi tam ne bu génnee bëccëg dana yee na kon wax jooju ne bu génnoon bëccëg dina yee na lu tax mu yee fitna mooy taalibe yi ko topp nee na duñ ay nit kon loolu yaakaar naa wax caaxaan la kon wax jooju day am tanaaqut ak ka mu yónni woon tam fekk ko ca barab ba tam ne ko sama benn taalibi kese moo xoqutal taalibeem yëpp man koo fekkoon ci sama biir taalibi bëgg ma def nangam fitna dina yeewu kon loolu yaakaar naa wax ji am tanaakul la ndax yaakaar naa ku ragal ab sénégalais sa morom yaakaar naa waroo ñeme tubaab kon indi gi ba ceeb warul mën a indi fitna kon loolu tamit wax la boo xamante ni wax bu yanuwut maanaa la kon tanaakul am na euh, yaani baynal xawlay ni kon lu mata bàyyi xel la euh, euh, beneen mooy am na fu mu misaale tam ci ne ba ñu duggee ci moom di ko xool fekk nañ fa benn murit boo xamante ni ma ngay yooxu xaw ma ma ngay lan ba misaale ko ba mel ni ab dawkat man la waxtaan ni mu ma ko tudd ab dawkat nga yaakaar ne suñu borom subhaanahu wa taala ak ni mu terale doomu aadama boo joxe misaal war nga mën a sax tudd beneen tur waaye doo tudd ab dawkat ñaar bi def mooy wax yi am tanaqud al masjidu Jurbel bi dégg nga mu ne Seyd Alhaji Malick moo defal Serigne Touba intervention pour ñu may ko ne ko nitu sox doomu soxna la sañ na am daara ak tool loolu wax na ne moo ko ñaan intervention boobu ci a xaw ma beneen bi des mu ñëwaat daan ne euh, ba sëñ Tuubaa bindu leetar di ñaan ñu may ko autorisation ci mu mën a tabax jumaa Jurbel kon kooku ñaari wax am na ñaari tanaqul yooyu kooku ñiy déglu ñoo koy atte seen bopp ñu xool lan moo ci dëgg beneen bi ci des mooy jenc jenc sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu kooku moom yaakaar naa ñoom dañ ci wax ba bàyyi bëri na ci ñoo xamante ni tey ñi ngi jàpp ne ñi ngi ko jën ci njaare mais jëncuñ ko Tuubaa loolu waxi caaxaan la ak wax ju ñaaw jëm ca wax yëpp ngir suufeel ko waaye rek day waax ne nitu yàlla moom ba loo ko gën di suufee rek cëram day gën di yokk ci yàlla yow ngay gën di euh, yow ngay gën di wàññeeku ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa bindal boppam ne xulubu man lam yuhibbuni yu wajalin wala yuraqu wala yuraquuna ma ramu wala baaba kooku yaakaar naa lu leer la lu lu ñu mën a wax la beneen bi ci des mooy bu fekkente ne saxal na ne euh, raw doom mi ngi jaare waaye newul Tuubaa loolu kon damay wax ne eh, respecté wu sax ñi nga xamante ni ñooy xolafaaw yi fi nekkoon te toog Seydi El Hadji Malick parce que ñoom ñi kenn ko ci ne ñëw nga Touba te bi nga ñëwee Touba dem nga ci barab bi nga xamante ni fa la sëñ Touba eh, nekk tey muy eh, rawdom xaddafallahu sirruhu wa nafaana bi barakaati ñëw fa saxal loola te da nga ko faa ziare ñaanal ko fa kon yaakaar naa kon loola nit nag def loo xam ne gëmu ko loolu mandarga naa fekk lay doon kon boobaa ñooñu leen leen jukko naa parce que boo nee du ko fii te sa xalifa wala sa kilifa ñëw ca barab booba ziar ko ñaara saxal ne kii mi ngi fii te fu mu dem looloo lay wax kon war ngaa xoolaat yow li nga askanal sa kilifa boobu loolu yaakaar naa lu lu yéeme la bu ko defee Serigne Touba tamit li mu wax ne bindoon na leetar di demande jéggal ci euh, gouverneur yooyu bu ñu seqee jéggal loolu mën na ko def loolu amul benn problème ndax man tawaada alillahi rafa ku wàccee sa bopp loolu yàlla suñu borom daf la yëkkate euh, li mu nett li ci Ahmad Sarr ki nga xamante ni moo ñëwoon ci Serigne Touba radiyallahu anhu ak euh, avant muy wax ak moom ba muy rëdd mu baag la ca am loolu tamit waxi caaxaan mënu ko wees parce que xanaa bala nga ne diwa a jox junni bii nii la na xanaa yow mi koy wax bala nga ko wax da nga naan ba pare waaye diwa la jox ne jébbal na boppam ak ki àndoon ak moom tabarat moom jébbalu xanaa kon nag du rëddee mu bi dañ ko caa dugalaalewul kon loolu ay caaxaan la beneen bi ma ci wax mooy bu fekkoonte ne mu sallasul xasaali Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ay biram da koo teg ci yooyu wala muy ñoddi yooyu kon dama ni tubaab yi ñu doon waxal xanaa kon mu doon doon musalas bala ñu génn Sénégal ñu tuub jàmm ne ñooyu mu dugal leen ci diina ji euh, ñaareel ba mooy Serigne Touba radiyallahu anhu li mu wax ne da doon dajale mbooloo meeg ay fas ak nangam nangam ak la ca Seydina Aj Malick wax naan ko maa la ëpp xam-xam ak maa la ëpp yàlla maa la nangam ak yooyu yëpp waxi caaxaan la ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu koo xam ne bi sa wayjur génne àddina buur yi woo nañ la pour nga ñëw di leen atteel te loola moo gën a sedd foofu nga am àddina te du tere nga am li nga bëgg mu bind ci xasida bu siiw googu xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawa taxus jawaisa tuxni kulla ma axsini bana xasida ga jeexe mu bind ko ca yaakaar naa loolu boo ko defee buñ ko xoolaatee tamit waxi caaxaan da ci am ñaareel bi mu wax ne bi loolu amee bi kooku uh, joxe hadiya jooju wax ko njëbbal ko Seydi El Hadji Malick ma ne Sëriñ Tuubaa dafa ree ba jaaxaan euh, Euh, kon loolu waxi caaxaan ndax sëñ tubaa euh, li gën a siiw ci liñ xam mooy sëñ tubaa kaana yadhaku bi tabassum sëñ tubaa daawul nekk nit koo xamante ni dafa daan xaqataay waaye lu mu doon def si yonent bi sallallahu alayhi da ko daan roye da daan euh, muuñ waaye daawu ree di xaqataay kon yooyu noonu yaakaar naa ne waxi caaxaan mënu ko weesu léegi nag lu mat a bàyyi xel la ndax lii ñaare ñi koy def yàgg yàgg na am bu mu jaaxal benn taalibi murid bu mu jaaxal benn taalibi tijaan Seydi El Hadj Malick Sëñ Tuubaa comme ni ma ko waxoon sànq rek dañu bindante ci lu bëree bëree bëri te ñaareel ba waxtaan bi li lay xamal ne wax ji li ci ëpp wérul li ci ëpp wérul moo que ne amul benn texte bu mu lay indil danaan la diw bindoon na leetar diw sotti woon na ko waaye du lay indil benn texte waaw du lay indil benn texte archive muy wax yëpp dégguma man mu liir benn texte ne bii la diw bind ci fii waaw te lay yaakaar naa ne mag ñi li ñu doon lu ñu doon def dañ koy bindante beneen bi mooy ngan gi nga xam ne Sëñ Tuubaa jóg na ko dem gana ji ko Seydi El Hadji Malick mag ñi bala ñu daan dem ci nit di la gana ji danañ xam ci ban situation nga nekk waaw ndax ñoom alquran lañ doon jëfandikoon waaw laa tadxulu ko utiliser bu baax a baax a baax daawuñ dem ci kër kenn te xamuñ ci ban situation la ne sinon ñu bind yónnee la wala ñu yónnee ndaw ne diw day moo ma yebal nee na bëgg na fee ñëw bi sàngam seet si la waaye duñ jóg rek bett nit ci ay waxi kasaw kasaw ak waxi kanaf kanafal kon loolu yaakaar naa waxi caaxaan la wax ju yenuwul maanaa la tey lu mat lu mata bàyyi xel la boo gisee ñu ciy wax nag comme ni ma waxoon sànq dafa am loo xam ne boo ci noppee tamit dafa mel ne da nga ko dëggal euh, bu defee boo ci tontoo tamit ndax alquran moom foo déggee suñu borom wax ne fasbir ala ma yaquluuna rek lay wax deel muñ ca la nga xamante ñoo ngi koy wax waaye nag am na wax yoo xam ne ne jëf la euh, fasbir ala ma yafaluuna moom gisoo ko ci alquran bu la nit tëggeem talaata moom la gën mooy nga tëgg comme talaata te mu gën a rafete kon nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ne Serigne Touba ak Seydi Hadji Malick ay mbokk deret lañ bokk lépp ñi nga xamante ne ñoo ciy wax ak ñi ciy jëf ngir yàq duñu bàyyi ila an yarisallahu al arda wa man alayha waaye nag al al batiniya moom saabitun subuutal jibaali rasiyat alaqa batin bi moom mi ngi fii sax ba faaw ndaxte yi mu wax nii yëpp li koy gën a yanoo dikul maanaam mooy taalibi tijaan bu dëggal ku fénqoog moom doo ko nettali kon yaakaar naa Seydi El Hadji Malick Sëñ bu ñu fénqoo woon taalibi tijaan bu dëggal ku fenqoo moom doo ko nettali waaye taalibi murid bi dëggal tam comme ni ko sëñ Muntaxa di waxe malaaka mooy naw leen wala mu gën malaaka ku fenqoo moom yaakaar naa doo ko nettali te ñoom ñaar yaakaar naa li seen weer di def ci ñoom amut lu ñu mën a wëlbatikuwaat ci àddina jaral leen ñuy def yi ñuy def nii beneen bi ci des am na fu mu wax ne bi mu ko joxee werd bi tam dem na ci euh, werdu xaadiriya xama boole yëpp ci la sos tarifatu muridiya <laughs> loolu tamit waxi ci axaan la ndax yaakaar na Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu werdu murid am na werdu boppam donte moom pratiqué na werdu yëpp mais werdu murid dafa am werdu boppam la ca dugal salaatul fatiha tam loolu xissa bu yaatu la ndax bi mu bindee mawaahibu naafi'a ki nga xamante ne mooy euh, tarixal bikri ki ko jiite mooy euh, Mahamadul Bakri moo ko feeñu ne ko kat sa xasida gi liggéey la boo xam ne suñu nangu na ko nang ma ci defal sama salaatu gi def ko ci introduction bi ndax comme ñaan nga ci ne wajaalha mimma tataghanna biha alxurul ayn bu ko defee ku jàng xasida gi jàngaale ko ndax liggéey la bu bu ma yàlla nangul te yool bi mi ngi may fekk fii te yow loolaal mu barkeel mu defal ko ko ci noonu dëxañ ko ci buntu Mawaahibu Naafi beneen bi ngi def bi mu jëlee werdi wi fële ca Mauritania mu feeñuwaat ko foofa ne maa ngi la ñaan nga dëxañaatal ma ko suma werdi moo tax salaatul fatiha dañ ko koo ñaan mu dugal ko ci werdi wi mu nekk ci jeexintal ba waaye bokku yi nga xamante ni moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon te tudd al werdul maquus min allahi bi wasitati rasulihi kon daal yaakaar naa boo xoolee nga xam Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ak ndawum waaw bi mu nekk tu tànk ba ni nekkee mag lépp ci njub la ko defoon defu ko ci caaxaan xalaatu ko ndax ci daara yi way juróom ne woon di jàngale ba dem ba ñi mu doon jàngal sax yëg ne kii moo dàq jàngale way juróom ñu ñëw di jàng ci moom wala bu leen way juróom jàngale ba pare ñu ñëwaat ci sëñ Tuubaa mu jàngal leen ngir laa bir gum amoon ndax Maamoor Anta Sali wax nañ ne am jàngaleem dafa gaawoon te sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu lum la jàngal nga xam ko kan naq fi day mel ne xeer wu tooy woo xam ne da nga bind looloo taxoon ñu bëri daan ko taamu ci njàngale benn bi mu jaar ci loxo yi bëree bëree bëri mooy xaalima jaxate kala ak ñeneen ak ñeneen ñum jaar jaar ci ñoom ñu seere ci moom ay seere yu rafet yii waxi caaxaan yi mu wax ñi yëpp amul bi ci sëñ Tuubaa mas a jaarale tànkam di wootee mbooloo di daw jëm ci àddina déedéet ndax buur yi ko xëcc suñ boppam bañ na ko ba dafa woon xaalima jaxati kala ne ko xam-xam ci buntu kër mi ngi mel ne aw weñ ci kaw yi dem àll booba digganteem ak Lat Joor la doon leeral xaalima jaxati kala ba ci xaside gi may wax nii di xaaluu li yarkan bi abwaabi salaat ni bay wax ci biir sax ne in kuntu za in aw kuntu za watarin daawtu dal ayni qabla wa siini ak histoire yi ca am ak li nga xamante ne séq na ko ak naar yi ak Sëriñ ko xam-xam euh, jaraloon ak li ko ñàkk a woote mbooloo ndax laa tafaalu say an bi xayri isni fal isni sartun fi xabali sani sëñ Tuubaa mosoo dégg fu mu ne ajibu daa yàlla wala mu woote mbooloo déedéet nit ñi ñoo ñëwal seen bopp gis lu leen convaincre ñu dugg ci moom mais sëñ Tuubaa mosul wooteel kenn mbooloo kon lii lu mata a bàyyi xel la ndax wax yi nii dañ koy wax te ñaari fi ñu koy waxee mooy fi ñu tolloo gis nga démb ki doon génnee wax ji ci jamonoy màggal nga xam ne nit ñaa ngi nekk di euh, màggal ak di sant ak di yàlla ñu génnee ko pour jëmbaaje xel mooy wax nga xam ne yëfu yëfu la pour yee fitna rek kon aayat yi ci ñuy wax yépp di wattaqu fitnatan wa laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa du ñu ci commentaire waaye ka wax wax ji lañ war a wax loolu euh, man man kaana yuminu billahi wal yawmal axir falyaqul xayran aw liyasmut comme ko waxee wax kële war a wax waaye waroo ko wax ñeneen ñi kon daal boo toppee wax ji ba ci biir wax dëgg yàlla wax ji tegginuwul te it ñàkk nay teggin lool parce que ñàkk teggin yam ngir lan ngir suufeel benn nitu yàlla léegi rek moo ko waral waaye suufee nit yàlla gi beneen nit bi nga yëkkati ngi koy suufee waale te yëgoo ko ndax boo ne diw moo jox diw werd ba mu am nangam ak nangam mu ñëw mu di ko ca critiquer wala dem ba nar ci am moom problème kon danga nga bëgg a wax ne këli dafa iñaane kii loolu nga bëgg a wax te Seydi El Hadji Malick kenn ku ne xam ne ne cëram ci yàlla kenn ku ne xam ne ne bëgg gi bëggoon Serigne Touba radiyallahu anhu ba képp koo xam ne déggati naa nga yëkkati kàddu gu ñaaw wax ko ci Serigne Touba di sama mbokk moomee jàppal ne yaay jàpp Malick waaye Malick moom bàyyi na kon moo looy tegtal ne moom mi wax wax ji ay moroomam yu mel ne moom daan nañ jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci kanamu ci kaw sëñ bi ba Seydi El seen bopp kon lu a lu mat a bàyyi xel la du fi yàlla moo baaxoo loolu yonent bi wax nañ ko ko wax nañ ko jabar kan nga wax nañ ko dangaa nangu soxna yi jàmbur lu ne tuumaal nañ ko ko ci wax ne dëgg moom lu yàgg-yàgg ni ma koy waxee rek fen mën na teel a yeewu balaa jant bi so mais euh, balaa jant so dëgg dana ko jot balaa jant so dëgg dana ko jot kon daal lu mat di bàyyi xel la bu baax a baax a baax jërul nag di yee fitna ndax ñu nekk ci daara ji nii di fi jànge wax dëgg yàlla ñëpp ay ñëpp ay mbokk lañ ñii ay xarit lañ nañ ñaan yàlla suñu borom musal ci fitna yu mel nii. mu mel ni ci biir wax ji ni ñu dégge ki doon wax dafa mel ni dafa tegtaloo wax ji ci ay kilifa donte binduñu ko. te mel na ni lam doon wax ñor na ko ndax dani balaa ngaa dugg ci ay wax war ngaa jiital ak xam lu foofu akuk leerlu ba mët sëkk nga sooga leeral li ngay leeral mu mel ni moom nee na lool yi jot na koo am ci ay kilifaam yenn ci ay kilifaam yoo xam ne rek ci famem la bokk mooy ku mel ni sëriñ Rawaan Ngom ak sëriñ Omar Vele donte itam nekkuñu lu ñu bind waaye gannaaw ba leerlu na ko itam nee na ci Abu Bakrin si mu dëggalal ko loolu waaye foofu li ma fiy tontu Cheikhul Xadim jël na wird ci alxaaji Malik ci ni mu ko nettalee euh, man naa ko dàq ba mu set dindi ko ba mu set a joxe ci itam ay firnde ndax ñi ñu jiitu woon ci ay mag di ay woroomi xam-xam jot nañoo leeral loolu waaye itam bu sëñ bi jëre woon wir di ca moom itam loolu làbb ës amul benn jafe-jafe ndax ab julit lépp loo xamee ni lu baax la lu teey lépp loo xamee ni lu yiiw la loolu fu mu ko mën a fekk rek sañ na ko jëfandikoo ndax alalam la waaye nag euh, jëmmi cheikhul xadim bi nga xamee ne way juróom génn na àdduna di mamoon di mamoor anta dafa jël benn at moo xamee ni da ko tuddee aamu at taxaquq muy tatawaaf yi mu doon def boobu doon na wër mbooleem ku baax mbooleem boroom xam-xam walla awliyaa yi sëriñ Tuubaa ci kuy dund ak koo xamee ni suñ borom dogal na dundul cheikhul xadim dem na ci barab ya cheikhul xadim ziyaare na ñëpp ngir am na benn himma maanam yitte joo xamee ni moo ko tax a jóg mar na mar goo xamee ni naan rek moo koy jagal tey itam ndox mu sell lay doon mu jóg nag wër ci mboolem doomi soxna yi ak boroom xam-xam yi comme ni ma ko waxe ba yegg si kon bu fekkee ni dëgg la ne jël na ci moom wird loolu dara nekku ci waaye ginnaaw wird wallaay wax jël na ca moom wird El Hadji Malick mu koy jox wird wi mu ni ko dafa am yum nangu ak dafa am yu mu bañ ci waxi Seydi Velek mu daldi koy jox nee na téere bu tudd Rimah ci la surut ya nekk ba mu ko jàngee ci la Cheikhul Xadim suñ jàmbaar ji suñ yaakaar ji tey ëllëg daal di koy tàllal loxo ne ko nag comme que yàlla laa doon wuti rek fii yàllaa ngi fi kon nag bis ni ko tey nangu naa ci jël wird wi waaye nee na ba mu jëlee wird wi ne na li mu njëkk a wax dañi sant naa yàlla mi nga xamee ni moo ma génne ci ak lëndëm jëme ma ci ak leer kooku moo umpale Cheikhul Khadim kooku moo umpale Serigne Touba moo umpale Serigne bi fan la jóge ak fan la naane ak ñan ñi nga xamee ni euh, di ay mag yu wér yu dëgg yu am xam-xam encadré ko ku mel ni kan Serigne Mamour Anta Sali ak mbooleem ay mbokkam sëriñ bi bu ngeen fàttali ci ginnaaw tuuti kan moo ko njëkk jàngal sëriñ bu soobe di ko ragal yàlla ko am xam-xam tafsir mbàkke mandumbe waaye kii di wajur Mamour Anta Sali li mu war a xam ci ndawam lépp mu xam ko ba taalif sax téere bu tudd Mawaahibul Quddus waaye téere bu tudd Masaalikul Jinaan ak yeneen doonoon am kaang di boroom xam-xam bu mag xam lépp kon tey bu ñëwee daan ne Cheikhul Xadim moo waa wax ji gannaaw ba mu jëlee wérdu wi lu ñaaw a ngi noonu di wax joo xamee ni euh, da ko wax ngir bëgg lam bëgg fay jublu ci ak defar te it daa sosal seexul xaddiim seexul xaddiim ci xam-xamam ci méthode bi muy waxee mooy uslub mbindam boo ko gisee rek doo ko naatable mu daal di indi benn bayit daal di Cheikhul Khadim moo ko wax ci ginnaaw jébbalu ga mbaa ci ginnaaw jël wérd ga daat ni waman araada nayla anwaarin yusharribuha fala yufaariq rimaaha cheyqina omar bayit woowee yéen ñi nga xam ay waykat ngeen ay jàngkat ngeen jël leen ngeen peese bayit woowa ba xam ban baxru la lay jox ci buxuur yi jëlal benn bayitu cheikhul xadim nga gam-gamle ko bayit wii ci bu la yàlla wërsëgalee nga xam ni cheikhul xadim di waxe li nga xamee ni lii nekkul sax luy xaw a nuru waxu cheikhul xadim euh, bi mu jëlee wirdo ba noppi ca ginnaaw ab diir ca la fay daal di jóge dem ca kon naan askamara ab sëriñ la woon boo xamee ni xañ na ci wàllu awraad yi mbaa ci wàllu xam-xam mbaa am na daal lu ko suñ boroom may sëriñ bi itam dem na fa xam naa sëriñ mbay gi eh, sëriñ mbay gay si la dana ko gën a leeral moom it dem na fa ndax ci amu taxaquq bi ma lay wax dafa jógoon di xool réew mi lan moo fi nekk lu wér ndax nit ñaare bala moo taxawal dara war naa xam lan moo fi nekk d'abord euh, bala muy taxawal dara te boo diggee itam ci askamara moom yi am na ay abiyaat yoo xamee ni jóge ci Cheikhul Khadim déggal ni muy waxee ngir dem na di wër di seet di xool réew mi di xool boroom xam-xam yi di xool awliyaaw yi fan lañ toll ak nuñ mane loolu rek moo ko taxoon a jóg dañ kumpa ba dégg nga nam tàggook askamara man zanna gayra allahi yughni aw yadur fa daaka fi daarayni du kaddin wadur képp ku jàpp ni ku dul yàlla mën naa jëriñ baa muy lor kooku torox na adduna waaye torox na àllaaxira jéeñu jëm daan ni xanaa xamoo a nafau wa durru mbaa a durru wa nafau min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaan lii di lor tey njariñ ci yàlla rekk la mën a jóge waaye munta jóge ci kenn moo xam ku weex la mbaa muy ku ñuul mu ni moom Seydi Wele dëggal na ne El Hadji moo ko jox wird naam waaye nee na ca askamara itam di ca jël wirdu xaadir bu ñu fàtte nag Mamour Anta Sali wirdu xaadir la yoroon sëriñ bu soobee wirdu xaadir la yoroon mu ni nag dafa xaaj wirdu tijaan xaaj wirdu xaadir ci la soso yoonu murit di a tariqatul muridiya mbokki jullit yi mbokki taalibe nañu ànd ak sunu xel te teey cheikhul xadim bi mu defee te tawaafam boobe ba dil siwaat mbàkki kajoor mu nekk fukki weer ak juróom benn gannaaw ba wuy juróom nelawee moom ci boppam moo waxal boppam moom cheikhul xadim ci ma asachin 1301 su ma juumul boo koy calculer du sori 1883 ci la leeral wax waxam ju réy jooji daan ni shaafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi rabbi asxaabaka bilhimma waaye wala turabbihim bi darsi faqat te wa rabbi kulla waxidin minhum bima yaliqu bihi ci la wax ne rasulullahi ci boppam moo waxante ak moom al ci waxam ju wér ju dëggu joo xamee ni amul benn buñ cay naatable ne ma moom rasulullahi ci boppam moo ni ma taalibe yii di jàng nanga nga aw doxaliin nang leen yar ci wàllu yitte donte daara ja ay kaang ña fa woon mboolem koy dégg ci senegal jaar na ci daara Mamour Anta Sali jooji bi Serigne Touba waxee loolu wax ko nit ñépp ne leen rasulullahi moo wax ak man ci koo xamee ni njàng rek moo la fi indi woon yëf yi tey bu fekkoon taalim la tarbiya dugg na ci waaye tarxiya itam am na ci soo demee lii lépp ma lay wax téere ba tudd irwa un nadim min asbi xubbi cheikh alxadim wala alxadim soo demee da ko ca fekk cheikh Mouhamed Lamine Diop dagana di ko ca nettali faaye wax gi mu wax itam ne am na benn jamono mu dégg am riir am mbooloo mu baree bari sëriñ bi la jëm si ci alaaji Malick nee na ñëw nuyu ko donte tur wëñ ko tuddal sax jëmmi Moor bàmba jooju mu koy wax itam tey jii laa mës a dégg ku ñu wooyee Moor Bamba tam tudd tam jublu ci Cheikhul Khadim tur woowu rek daanaka doy na ak tooñ ñun Ahmadou Bamba Ahmadou Sall la tudd Ahmadou Sall muñ ko tuddee dëkkoon dëkk bu naan Bamba looloo waral ñu nag Ahmadou Bamba waaye Touba itam comme que moomam Touba ñu naa ko sëriñ bi nga xam ne moo nekk ci Touba mooy sëriñ Touba waaye nee na benn bis Cheikhul Khadim ñëw di nuyu El Hadj waaye ànd ak ay taalibi yu bari biñ ñëwee alhaji malik am nu mu jëfanteeg moom am nu mu waxanteeg moom mel ni ku koy yedd lépp nag Seydou Wele bi moo ko nettali mel ni daal ku yor sas ngone mbaa sas jaam mbaa nam ko waxee muy melawu doy kiimaan di ko yedd ba ci sabab boobu ci lim ko doon tere nee na ci loolu ci la toog ab diir li mu wax dañu sëñ ba ñëw na fa bisub talaata mbaa altine ah altine talaata àllarba ba àllarba dellusiwaatee ci la la ndaw ñëw ne ko jàpp nañ sëriñ ba eh, li El Hadj Malick wax ci ay waxam moom Seydou Wele xamoon naa ko bettuma ana Masamba Mbacke ana Cheikh Anta jàppuñu ko loolu euh, di xaw a dàqonteeg mbaa di dàqonteeg bu baax a baax li nga xamee ni sëriñ El Hadji Malick na ko ci téere boobu ma wax tudd irwa un nadim nandal aji naanaa leja min asbi xubbil xadim ci aji neexi sopp cheikhul xadim ca baabu shahadat soo demee fekk ko ci ca mujjug téere ba El Hadji di seede di wax ci Cheikhul Khadim joo xam ne wuute naag wax jii nii Seydou Wele wax ni El Hadji moo ko wax lu mu wax man mii El Hadji ak samay moroom ñi nga xam ne ay suyuuqu turuq lañ maanaam turuqu suufiya kenn ku nekk ci ñun mas naa def benn xëf wa maanaam benn jamaj mbaa sax ay xëfawaat ay jamaj digganteem ak boroomam jéggulu ko ba mu des Cheikhul Khadim mus a wax mus a jëf mus a mel nenn noo xamee ni lu juyoog sunna la mbaa luy naqari sun borom la cig ndawam ba cig magam kon kii seede lii kii wax lii yii daal wuute na lool ak ni nga xamee ni noonu la Cheikhul Khadim mel tomb ñaareel bi rek mooy eh, Seydou Wele wax na ci biir waxam ne ginnaaw bu ñu jàppee Serigne Touba te tam tuumaal El Hadj Malick moo wax loolu euh, nee na li tax sëñ Touba ñibbisiwaat it El Hadj Malick ko def. Euh, Cheikhul Khadim dellu si gi mu dellu ci géej gi maanaam ñibbisi loolu itam nee na ci ndimbal ci intervention boo xam ne El Malick moo ko def. nee na moo tax Cheikhul Khadim ñibbisi foofu ma daane léegi nee na Serigne Touba jàpp nañ ko te yóbbu nañ ko juróomi at El Hadji Malick dara la ci waxut ci waxi Seydou Wele nee na bi juróomi at yi matee ci la daal di dem njaareem mooy Jurbel dem ci ab xaritam bu tudd te wëñe booba moo nekkoon njiit foofa nee na te loolu xam naa sëñ bay gi sëriñ bay gay sile dana ci ñëw ndax téwéñu moom yi am na ay eh, eh, am na ay lettre am ay archive yoo xam ne sëriñ bay gay sile mi yor na ko téwéñe nee na ci la Alaaji Malik dem daal di wax ak moom ne ko sama mbokk mi nga xam ne dañ koo jàpp diirub juróomi at ci laa ñëwoon di dox ngir daal bëgg caa dox ay tànk ñu tin ma ci neena ci la ànd ak moom dem ndar ca borom ndar te tuuru borom ndar boobee rek dinañ ci jàngewaat tuuti cheikhul xadim dañ ko woo ndar gannaaw ba nga xamee ni mboolem kilifa yi fi nekk yépp nag bàyyiwuma kenn nag tubaab yi tëral la ñuy tëral ci yoo xamee ni daa juuyoog lii nga xamee ni mooy njàngalem lislaam ñoom ñépp ñu d'accord ci loola kenn ku ni signé bi Cheikhul Khadim ñëwee biñ ko leeralee loolu di ko ko signéloo ba borom ndar naan ko am naa mu dabbirul umur lam ca teg dañu ko déedéet mënumaa dégg loolu waxoo dëgg mu dabbirul umur mooy kele fi baax ta fi kooku mooy borom kun fa yàkkoon kooku mooy jëmm ji nga xamee ni kullu shay'in haalikun illa wajhahu kooku mooy yàlla sunu borom di ko seedeloo cheikhul xadim leeral ko bu wér ne ko yàlla rek mooy yàlla ku dul yàlla déedéet yàlla rek moo fi nekk kon waxam juree jooju ci gàttal rek wax ba tax mu dem kon la ko yóbbu moo ko wax ñoom ñu décider ci ñetti yëf ci tëj ci rey waaye ci naf yi génne ko te moom jëmmi sababu géej bi am na zahir waaye am na baatin zahir bi mooy rambaaj gi ñu ko doon rambaaje ci gàttal waaye baatañ bi nag moom moo bëggoon foo xamee ni foofu lay wéetale boroomam bëgg faa def diir ba mu fay def lépp ci kàttanul suñ borom ba tubaab yi suñ boroom tàggat leen bañ war a indi sëñ bi ñu ni alxaaji malik moom moo tax ñu indi sëriñ bi ndax téwoñe dafa dem ci góor gouverneur Ndar mu ni ko comme que sa kàddu dugg na ci dinaa ji ma téléphoné France mbaa ña yore mbir ma bu ko defee buñ déggee kàddu gi rek ba xam lii sa soxla la incha allah danañ ci taxaw ci lu ma tudd weer góornooru ndar daal di woowaat El Hadji Malick ak téwo ñu moom ci waxi Seydou Wele ñu delluwaat ndar mu ni ko la doon wax de nangul nañ ma ko kon bato buy ñëw danañ ko ci dugal loolu moom. musuma koo dégg ci menn mag jànguma ko itam ci téere te archive tubaab yii itam mi ngi ci te sëriñ Mbay Gay Sille dana ko leeral léegi incha allah waaye daal loolu yi moom daa juuyoo lool ak la war a am daa juuyoog lool ak li nekk waaye demuk sëriñ bi mba ak ñibbiseem du yoonu Alaaji Malik du yoonu kereen moo ci nekk waaye coobare suñ borom ma ko yóbbu woon suñ borom moom moo ko dellusi waatu waaye xam naa lam wax ba dem moom dong moo ko wax ku ko waxoon itam ànd ak moom ci yoon woowe daal di dem kon ñoo jot a dégg ñaari tont yu daal yi nga xam ne tontu na ko ci wax ju jëkk ji mooy sëriñ bi Alaaji Malik ko joxoon wérd ak moo taxoon mu ñibbisi kon sëriñ Bay ñàkkut ne lii nga tiim ay mbind la yoo xam ne ci archive nationale la jógee tubaab yi bind ko muy lenn loo xam ne des na ci mën a dégge lii Seydou Wele waxoon waaye ñuy fàttali ne tontu wuñ Seydou Wele ki dugal wax ci jamono ji wax ji moo tax ñuy wax waxaat ji ndax fitna kenn du ko yee waaye bëgg nañ nag jullit yi koy dégg yépp amewaat ci lu leen leer nañ ñi ana tubaab yi yan rapport ak lañ leen bind ci demuk sëriñ bi akuk dellu seen waaw jërëjëf euh, Fallou Galass Syll ginnaaw mu nuyoo bokk yi nuy seetaan di nu déglu sant itam Serigne Bass euh, li mu tënk am na solo euh, wax ji nag dafa am ku ko waxoon booba ak léegi fanweeri at la ak ñett ndax 1982 la woon muy Seydou Wele wax ji ba mu ko waxee li tubaab di wax kuute woon na ko cher yàqoon na ak dundam ba muy làqatu dootul génn niñ ko waxee demoon nañ ba wax ja sedd ndax booba ku amul woon magnétophone am bande bi déggoo woon wax ji euh, àddina di dox ba léegi jamono jépp nekk benn toile muy li ñuy wax internet euh, ku ñuy wax Ahmed Sarr jël wax ja dugal ko ci biir YouTube ci internet yemul ca dugal ga waaye dafa wax ni na ngeen ko déglu écoutez s'il vous plaît mooy na ngeen ko déglu te ngeen tas ko ba mu yaatu euh, wax joo xamante ni ka ko waxoon rëcci woon na ko nag tey nga def ko foo xamante ni monde bépp dégg nañu wax ji ñun ñëwuñu pour tontu mais dañoo ñëw pour leeral ndax ni ko sëñ bi waxee Seydou Wele mu ngi tàmbalee ni sëriñ bi El Hadj moo ko jox wirdu euh, Tijaan mu nga ko fekk euh, ca gaaya mu ngi ko fekk fu ñuy wax euh, gàmbu cele ni gàmbu cele ab ten la te gàmbu cele ab dëkk la loolu sëñ bi ñëw na ci mais li ma ciy wax mooy Seydou Wele sëriñ Moussa Ka moo ko mag te tukki boobu sëriñ bi doon wax ginnaaw bi sëñ Mor Anta Sali làqoo sëriñ bi doon wër nit ñu baax ñooñu ak nit yàlla yi di seet sëriñ Moussa Ka daf ñu ko nettali moom moo wax ni boo xalamee at ma sëriñ Touba demee te kenn xamul fu mu jëm ci réew mi moo ñime ngir tàgguwul kenn ku dul maam Thierno te moom du feeñal mbóot li tax mu raw nu e, mu ni nag sëriñ bu soobee daal di bindub leetar yónnee ko Cheikh Sidi moo am titre leetar ba dem fekku fa Cheikh Bamba e, Mbàkke ak Mbusoobe ñoom ñëpp àndandoo di Bamba maanaam ndax am nañu jaaxle xamuñu fu sëriñ bi dem mu ni sëriñ ba jaar jolof di dem ba waalo ñu naa ko doomi doomi astawaalo ba mu demee ba romb mooñ ji di maam Ibra Ndiaye la gis mu naan ba màndi Cheikh Bamba romb ko fa dem gàmbu cele El Hadji Malick la fa gis mu jàngale ba mu nuyoog El Hadji waxtu xasri da ko ni santal bin daje lil xasri maanaam ba sëñ nuyoo ak El Hadji Malick fekk ko mu yor daara di jàngale sëñ Tuubaa bi ko yow day santal yàlla bi nga tasee ak man pour gàttal sëñ Moussa Ka mu ni sëriñ bi nag ba mu dellu see la daal di wax Ceerno Ibrahima gis naa fi mbër mu tudd Ibrahima jëwriñi lis jëwriñi àllaa jële fii lislaam yi bun sàgganee mu raw nu fil xiyaami kon euh, sëriñ Ibrahima njaay moomu moom la sëriñ tuubaa gis ci moom loo xamante ni ba mu ñëwee dafa wax borom daaru muti ni ko kat gis naa fi góor yàlla goo xam ni mooy jëwriñu El Hadji Malick ci lislaam moom moomee nag bu nu góorgóorlu ëllëg dana nu raw ca la wax ni ci la sëriñ bi waaj ngir toppatoo dem ci euh, euh, dem ci géej gi euh, li mu wax ci sëñ As Kamara sëñ bi ñëw na ci sëriñ Touba fu mu jëlee wérd nëbbu ko lu leer la xam ko ba sëñ Moussa ko woy ko sëñ askamara Kamara bor sëriñ bi dem na fa jëli fa wérdu xaadir loolu kenn wérante ko li ci des nag mooy intention de nuire bi mu am ci waxam jooju maanaam liñ ci mën a nettali rek loolu la ñuy tënk te wax ji ni ko sëriñ bi waxee daf noo indil loo xamante ni tubaab bi bind ko histoire bi indi ko nax moom Seydou Wele wax na ni Serigne Touba tëj nañu ko gànnaar juróomi at doog koo yóbbu ci géej gi nga xam ne kon sëñ bi de 1890 la ñu ko yóbbu gànnaar ba 1895 ñu doog ko fay ñu doog koo jël yóbbu ko Gabon loolu nopp daloo na information boobu ci waxi Seydou Wele ji nga xamante ni ñi am fanweeri at ak ñett ñi ngi koy doog a dégg tey bu ñu ko génnewal waatul woon du ñu ko dégg loolu di benn. bi ci des li mu wax ci gàmbu cële li mu wax ci ci ci njaarnde njaarnde mu ngi nekk ci wetu gàdd yàlla euh, ni sëriñ bi ñëw na fa ba alaaji malik euh, dénk ko waxal bàyyi sa lii ngay def demal bay te jàngale euh, ba ba xamal ko ni ko adduna daf doon ab caga maanaam jigéen ju amul borom kër léegi nag am na boroom kër te borom kër bi dafa fiir te borom kër bi du kenn ku dul tubaab bi kon bàyyil sa yii ngay def te def nii may def ñëw di jàngale boo xëyee jàngale bu ngoonee nga béy nee na ba fa sëriñ bi jógee dem talaata la ba talaata ji del see àllarba la ñuy jàpp sëriñ bi yóbbu ko ñuy wax ko El Hadj Malick kon sëñ bi génnul yow ma sabti Seydou Wele nee sëñ bi génnewul Mbàkke Baari bisub gaaw waaye àllarba la fa génne kon loolu itam nopp daloowaat na waaye li ci gën a tee yéeme mooy Seydou Wele nee na Serigne Touba deful juróom-ñaari at Gabon ndax nee na ba ñu ko fi jëlee ba mu am juróomi at la El Hadji dem ci tubaab bu ñuy wax Tévigné doonoon ab xaritam nee na moomu sax euh, am na ñu waxoon ni tuuboon na ba doonub jullit euh, Tévigné moomu mu bëgg ci indi ay leeral may wax Seydou nekkatu fi faatu na waaye ki leeral wax ji ma di ko xamal ni loolu mu wax mënut la nekk ndax lu ñu fi wax lu re ci archive nationale de France lañu ko jëlee ab lettre a ngi nii Thévigné moo ko bind boobu mu ngi nekk commandant de cercle bu Taraza ca Mauritanie lettre bi mu ngi ko bind le 29 juillet euh, astafurlah euh, lettre wala astafurlah mille euh, booba lettre bi mu ko bind boobu saatul maa la nekk le 6 mars 1907 lettre bi lan la ci jublu fekkoon na autorité coloniale yi nekkoon Sénégal commandant bi nekkoon gore bindoon na lu gouverneur général di ko xamal ni ko waxal le ministre des colonies Ahmadou Bamba ñu gën koo yóbbu ca biir gànnaar ca biir gott ba fu mel ni fi ñuy wax Fort Capolani ndax fi mu nekk dafa jigee frontière bi murit yaa ngi dem di ko fa fekki kon nañu fexe ba jàllale ko mais bi muy bind loolu ci mois de mars le 22 mars fekk na am na leetar bu ko jiitu ndax ci juróom-benni fan ci mars moom ci wiñe bind na gouverneur di ko xamal ni ko maa ngi am mbégte di la xamal ni Ahmadou Bamba mii nga xamante dañ ko def résidence obligatoire fii ci Satouma comportement bi mu fi comporté wu tax na mu bëgg maa ngi demander autorisation ngir mu dellu si Sénégal ndax sëriñ bii kat Euh, lim fi nekk lépp maa ngi koy seetlu waaye gisuma lu war a tax nu téye ko fii ci gànnaar te am na kenn ci njaboot gi di sëriñ Cheikh Thioro nee na même bu fekkente ni dañ doon laaj ay garanti moom mën naa joxe ay garanti ngir Serigne bi dellu si kon euh, Thévigné kon euh, kon Thévigné moo doonoon commandant de cercle bu Taraat sa jamono ji sëriñ bi di dem ci géej gi Thévignon mu ngi nekkoon Madagascar Thévignon mu ngi tudd Jean Baptiste Thévignon mi ngi juddu ci le 27 février 1870 jamono yi sëriñ bi di dem ay documents yu leer la boobu moom mu ngi woon Madagascar euh, en 1905 lañ ko indi gànnaar sëriñ bi ñu yóbbu mu fekk sëriñ bi gànnaar gis comportement boobu demoon na ba am ak cofeel ci sëriñ bi te loolu li koy dëggal mooy lettre bi Thévigné jëlee nañ ko gànnaar def ko l'administrateur du Baol maanaam le commandant wu Njaareem mu bind lettre bi euh, gouverneur général mi ngi ko ko bind ci le premier juillet 1908 fekk na boobu sëñ bi at lay doog a am ci Jolof moom mu nekk. Euh, euh, Diourbel mu bind gouverneur ni ko euh, dafa am sëriñ boo xamante ni bii dama dafa nekk en résidence surveillée ci Thièyène Jolof ma bëggoon nag moom sëriñ boobu di Ahmadou Bamba nga bàyyi ko mu ñëw fii ci Diourbel ci sama wet loolee mu requête bi mu doon def tubaab yi nanguwuñ ko ndax teg nañ ci ñeenti at doog a indi sëriñ bi njaareem kon Tévigné mi muy jël mel ni Tévigné dafa def fanweeri at Diourbel ndax ci biir wax ji wax na ni Tévigné moomu moom la El Hadj Malick wax ni ko mayal sëriñ bi kër muy kër gu mag gi nee na El Hadj moo tax ñu jox ko sëriñ bi Tévigné moo ni eh, gouverneur may leen sëriñ bi fii mu tabax eh, jumaay njaareem ji te loolu li koy weddi mooy maa ngi ak document bi association boo xamante ne dañ ko sasoon jurubeel do wutoon benn huissier bu ñuy wax monsieur Gaye doon demandé ni dañoo bëggoon def Euh, euh, barab bi jumaa ji nekk un titre foncier euh, commandant de cercle Diourbel mi ngi bind gouverneur xamal ko ni ko en mille le le 7 fév le 7 novembre 1917 ci la ñu joxoon Serigne Ahmadou Bamba permis d'occuper nga xam ni barab ba du titre foncier mais permis d'occuper la léegi nag ñoo ñooñu doon dox loolu ngir bëgg titre foncier Cheikh Ahmadou Bamba nee na titre foncier bi bu ko kenn def ci aw turam ndax jàkka ji jàkkay yàlla la jumaa jumaa yàlla la barab bi jullit yépp ñoo ko bokk kon bu ko kenn def ci wuturam kon su waxee ni euh, Tévigné moo dox loolu dem na ba 1927 bi sëriñ bi laqoo mu wax ci wax ju ñàkki teggin joo xamante ni bii euh, du ñu ca dellu wax na ci ni Tévigné dox na ci diggante sëñ Modou Moustapha ak euh, maam Cheikh Anta wax yoo xamante ni ay teggin du nu may nu di ko nettili waaye kon mu mel ni kon Thévigné de mille neuf cent euh, euh, de mille huit cent nangam ba mille neuf cent vingt sept ma nga sax Diourbel te sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko commandant de cercle Diourbel bi monsieur Pall lañ ko doon wax li mu wax ci wax ju ñàkk ay teggin ci làqu sëriñ bi ay document ngi nii yoo xamante ni lat ministre moom nee na Thévigné moo fa nekkoon waaye monsieur Pall moo def rapport bii envoyé ko le gouverneur général gouverneur général envoyé ko le ministre des colonies ba ñu envoyé woon benn télégramme ngir di jaale Serigne Mous Modou Moustapha ñibbi si Serigne bi Touba. Euh, lam ca wax du ma ko nettali waaye ci gàtt rek nee na Serigne bi dencuñu ko Touba njaareem la ñu ko denc. ay documents ngi nii yoo xamante ni bii commandant de cercle bu Diourbel moo xam le ni kët ci guddi fukki fan ak juróom-ñeent ci juillet jàpp ñaar fukki fan ci weeru juillet 1927. sëriñ moodu Moustapha ak sëriñ Balla Coro di maami sangi bi toog ànd nañu ñëw xamal ma ni ma sëriñ bi fekk nañu ko ci néeg bu mu daan wéet daa fa jaamu yàlla mu mel ni dafa tànn ngir dëkkaale ji ak boroomam ma ànd ak ñoom ñëw ba dugg ci néeg bi ba gis ni loolu am na ma joxe ay ordre ndax kër sëriñ bi bari woon na gaali xaalis yu fi nekk man maa jël décision wax sëñ Modou Moustapha ni ko sëñ bi dañ ko yóbbu Touba denc ko fa provisoirement bu yëf yi jàllee ñu delloo si ko waat Jurbel parce que ñoom dañoo waxoon ni sëriñ bi suñu ko dencee Touba Touba dafay rey Jurbel ndax commerce bi nekk Jurbel day tuxu ñëw euh, Touba ñu ni kon gaali xaalis ya fa nekk moom la ñu dajale tubaab bu ñu doon wax lilaan mu nekkoon ci chambre de commerce bu bu Kaolack moom moo ñëw ñu dajale gaal ya suusele ba ñu doon def ci kaase lilaan la ñu ko def mu wax ni kon sëriñ bi jël nañu ko indi ko Touba denc ko on popa peut pas on ne peut pas que le roi kon Touba bi nga xam li nga waxoon ci tàmbali bi CRS noonu dafa am solo ñoom ci tënk loolu la ñu tënke làqu sëriñ bi certifié ni kat dañ koy indi Touba bu yëf yi jàllee avec l'accord de sëriñ Modou Moustapha ñu delloo si sëriñ bi Njurbel loola wax nañ bañ ko waxee sëñ Modou Moustapha ca la ni woon loolu sama bakkan laa ci teg ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla ko sunu borom fayal ba muy tere tere mu ni sama bakkan laa ci teg kon bëgg wax wax ju ñaaw moo tax mu jël loolu nga xamante ni bii mooy tubaab boobu di lilaan fenn fu nekk euh, mu euh, dugal ko fa mu dellu waxaat itam wax ju ñaaw wax ni euh, sëñ Modou Moustapha bi Alaaji Malick nelawee ci vingt 1922 lilaan astafurlah Tévigné dafa ñëw xamal ko ni ko Alaaji Malick nekkatul nee na sëñ Modou Moustapha xamal ko ni ko ñoom waa Tiwaawan de la ñuy wax euh, euh, siggil ndigaale waaye nun kenn duñ ko wax siggil ndigaale maanaam la mu ci jublu mooy sëñ Modou Moussa dani sëñ bi moom du fi jógee te loolu wuute lool ak télégraphe bi nga xamante ni bii Saint-Louis le 13 décembre 1922 ñoom ñuy nettali sëriñ bi njaal mu rafet bi nga xamante ni bii yebal na maam Cheikh Anta mu dem Tiwaawan ngir jaale ji njabootuk El Hadji Malick ba mu fekk fa El Hadj euh, euh, euh, le Serigne Ahmadou Bamba s'est associé à ce à ce mouvement religieux et à envoyé son frère Cheikh Anta auprès de Babacar Sy et Seydou Nourou fils gendre de El Hadj Malick Sy maanaam doomi El Hadj Malick ak ab sët ci moom pour leur présenter ses condoléances et leur faire euh, les présentes du sage mu ni nag c'est c'est envoyé à à sermonner les groupes mourides de Tivaouane et de Mekhe d'avoir affecté de se tenir à l'écart de ces manifestations et fait exprimer à l'administrateur de Tivaouane ses regrets et son mécontentement d'une pareille attitude à l'égard de la mémoire du serviteur loyal et dévoué de la France qui fut El Hadji Malick Sy kon tubaab bi waxuma de tubaab bi moom moo bind wax ni sëriñ bi yebal na rakkam maam Cheikh Anta mu dem jaale ji Euh, Babacar Sy ak Seydou Nourou Tall kii doom la kii ab sët la pour ñu dem joxe ji seenu jaxal mu ni nag wax na murid ya nekk Tiwaawan ni leen tubaab dafa mel ni Tiwaawan ay yëngu-yëngu dafa amoon mu ni leen nag yëngu-yëngu yi yéen bu leen ci bokk maam Cheikh Anta wax leen ko ba pare wax ni euh, wax na administrateur Tiwaawan bi ni ko daal euh, li fi xew ci ay yëngu ci maanaam ci làqu El Hadji loolu rafet la uma ko mu ni nag l'administrateur de de de de Tivaouane moom itam nee na ñaawlu na loolu nga xamante ni def nañ ko ci euh, de la mémoire du serviteur loyal ki nga xamante ni bii nun la fi nekkaloon dévoué de la France qui fut El Hadji Malick kon maa ngi ñaawlu ki nga xamante ni nun tubaab yi la fi nekkaloon déggaloon nu lool mu jóge fi yu mel nii di fi am yemel mel nag yu fa am nag xaw ma lu mu doon leeraluñ ko ci document bi mais loolu moo am kon loolu sore na lool ak sëñ moodu Moustapha naan waa Tiwaawoon ñooy dégg euh, euh, siggil ndikaale waaye doon duñ ko dégg li ci des itam Tiwaawan mi muy wax ñi moo delloo si maanaam moom ci la El Hadj Malick jaar ba sëriñ bi dellu si euh, kon moom sëriñ Touba deful sept ans Gabon waaye cinq ans la fa def ndax nee na ba mu amee juróomi at la El Hadj Malick dem ci ki nga xamante ni bii moo fi nekkoon gouverneur ak tuwiñe ni ko sëñ Bass waxe ba sëriñ bi dellu si foofu ma di indi xew-xew boo xamante ni bii xewoon na fi ndax booba gouverneur bi fi nekkoon le lieutenant gouverneur Chaudié moo fi nekkoon Chaudié moomu bi sëriñ Touba amee ñetti at Gabon ci 1898 def na benn tournée ñëw tool gii nga xamante ni maam Cheikh Anta moo ko tuddee Touba tool lan la fa doon wut mbaaxaan Diop doomi Lat Joor moom la doon fal ngir mu doon chef de province bu Sambé euh, Salmon Fall di doomi Thiassine Fall moom la doon fal ngir mu doon chef de province bu Lambaay ndaje ma ba ñu woyee kilifa yooyu ñu daje moom Chaudié dafa wax ni à partir du premier janvier mille neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit bëggatumaa gis benn jullit bu natt asaka li fi am mooy séeréer yi la ñu mayoon ñuy fay deux francs impôt léegi nag yéen li ngeen daan fay ëpp na deux francs mais léegi may nañ leen yéen ñëpp généraliser nañ ngeen di fay deux francs impôt waaye euh, asaka moom bëggatuma ko faa dégg euh, suñu deful ndànk nag ba mu waxee loolu kilifa ya waxoon ni asaka dootu fi am ba tere ko seen ñooñ loolu këyit yaa ngi nii ak man ndagam wax joo xamante ni wax ju yàgg la moom lañu delloo si yeesal ko man li ma yor ci archive nationale de France laa ko jëlee binduma ko tubaab yi ñoo ko bind may xam le ni koo xamal xamal na la Serigne Touba ku mën a dem gëstu ci archive yi nekk France walla Sénégal ba gis fu mu salité wala mu nungul tubaab yi génne ko publier ko ci lu dul naan ay nettali lañ ma nettali génneel loola wane ko man ma génne li ma yor wane ko ndax lu fi waay defoon ku fi doon woote ci l'islam ñiñ doon wooye les martyrs de l'islam ña doon xeex faatu nañu ña xeexul woon ba ci Sidna Limaamu Laay en 1887 la ñu ko jël tëj ko deporte ko ni ñu defoon Sëñ Tuubaa yóbbu ko Gabon moom wuñ ko Gabon mais gore gi lañ ko déporté woon kon li sëñ bi wax nii ku waxoon la Serigne Touba wax danga dem ku fi toog danga waxul la Serigne Touba waxoon may wax nag ni trop c'est trop mag ñi dañ fe nekkoon doon maslaa ci seen biir xaqida dafa am solo nit ki ak lu mu gëm dafa am wax yoo xamante ni euh, koo bokkalul diine sax waroo ko ko wax ndax bandub Seydi Wele bii ñibbi sëriñ bi jóge ci géej gi wax na ni ba ñu waxee El Hadj ni mi ngi ñëw daf leen ni tubaab bi dañ ko ni ndar lañ la koy livré mel ni bato bi moom oto la bopp bu ñëwee ba Dakar dañ koy indi ba ndar mu ni leen indil leen ma ko waxtu guddi gannaaw timis ndax bëgguma wala fi di tëngu wallahi lazim la mu ca teg am na murit mënuñu ko dégg xalaatuma koo wax condition ya ñu fekkee sëñ ba nañu def tubaab ba ni nikk ci loxol sëñ bi ni El malik am yaa taxoon ma indi ko am mu ngi noonu may xam le ni sëriñ Touba ba muy jóge Gabon ci lu biir ci journal officiel bu France boo xamante ni ça date de 1902 numéro 62 manifeste bato bi indi sëriñ bi ma nga fa bato ba indi sëriñ bi taxu ko woon jóg bato bi mu ngi tudd ville de Maceió di benn ville bopp mu ngi nekk ca Brésil ville de Maceió boobu mu ngi jëmoon dëkk bu ñuy wax Bordeaux ba muy ñëw dafa sëfoon ay bant maanaam ay dénk ca sëriñ bi dugg ak lu mat juróomi sénégalais ak fukki soldaar ak juróom yu ñuul bato bi dafa escale Dakar sëriñ bi débarqué ñooñee débarqué bato bi continuer dem fi nga xamante ni bii mooy Bordeaux kon kuy sos mbaa ngay wax nañu wax yëf yi ni mu demee kon euh, ki nga xamante ni bii moo yee fitna ni ñu ko waxee ndax wax ji bu génnaatul woon ñu judd woon 1982 du ñu ko dégg kon Ahmed Sarr moom la ñuy waxal ak ces pions yi nga xamante ni bii nee nañu ay murit lañu mu nga xamante ni li mu wax sëriñ bi duma ca jaar mais ku mu ko waxoon sa waajur nga futteeku jaay ko sa bakkan mu wax ko sëriñ Touba mi nga xamante ni moo moonu gënal sunu ndey gënal lu sunu baay mënal nu lu sunu baay mënalut mënal nu lu sunu ndey mënalut ñu wax ko wax ju ñaaw nii nga jóg ni murit nga ba noppi jóg di wër kilifa yi ak a téléphoné ngir wax ni am Ahmed Sarr dugalut yëf yi doomi baayam wala doomi ndeyam te loolu moor dagg soo ko def murit boo xamante ni bii wax ji dégg nga ko amoo ci looy naqari wéy nit wéyee xaw ma dañ laa grése xaw ma ngay ñóg ni danga nga ciy dox toog ki jàmm boo ne murit nga da ngay dunde yoon waaye dundaloo ko li nuy wax nag nun ñii la engagé ndax ba nuy jébbalu tàgguwun kenn dañoo signante ak Serigne Touba contrat indéterminé kon nag ñiy wax waxewuñu ay tànk waxewuñu loxo waxewuñu bopp aw làmmiñ la ñuy waxe te la ñuy wax nee nañu version orale la ndax sama bàyyi ma ni sama magi bàyyi ma nettali El Hadj Rawaan nga ma nettali te sama baay booba gone la El Hadj Malick koy jàngal mu ngi toll ci sóoratu yaasin di la nettali ni ñu joxe sëñ Touba verde ak nu mu tuddati yëf yi daal gudd na waaye mu gudd mu gàtt daal li ma bëgg mu leer nit ñi mooy trop c'est trop maa ngi fekk ay lettres li lépp c'est des documents am na fu mu waxee itam ni leetar bii nga xamante ni ci yoonu gànnaar bi la sëriñ bi bind mu ni gis naa fu ñu exposé lettre bu sëñ bi bindoon di tuubal tubaab bi di ko di ko tinu ci woo bu mu ko wowul woon ba wax ci sëñ ba wax joo xamante ni kenn mënu ko nettali loolu ñaaw na loolu lii ngeen jàkkaarloo mbindum sëriñ Tuubaa la ci le 10 juin la ko yónnee jox ko borom daaru muuti mu yët ko gouverneur général ñetti fan lañ ko teg le 13 juin di bisu gaawu la sëriñ bi génnee daarul manaan kon li nuy wax yii nag du ma ko génne dafa am yoo xamante ni kenn du ko leeral su xuloo amut waaye yu mel ni bu amatee internet bi la te bu boobaa du man maa bind mbindum tubaab bi laay génne kon nag nanu ko dégge noonu te xam ni euh, euh, euh, Seydou Wele waxoon na wax ju ñaaw waaye wax ja su ko am Ahmed Sarr génnewaatul woon kon wax ja du génn Mor Dagg si la miy wër ci kilifa yeeg fenn fu ne ni baal leen ko daa juum ak day nu mu tuddati dama koy wax ñëpp di ko dégg kuñ ko waxoon sa waajur doo ca dox tànki jàmm kon buñ ko waxee Serigne Touba ku du ku di jullit te xam Serigne Touba sax dana la metti bu ñu seetee ñi nga xamante ni bii ñoo yoole seen deret ak seen bakkan lislaam ngir mu mën a taxaw ñi ci ëpp ñi ngi daanu ci armée jàmbaar jooju góor yàlla bu mag ba di El Hadji Omar Foutiyu Taal taxawaay bi nga xamante ni bii taxawoon na ko ngir lislaam mën a taxaw yëbaliwu ko woon ci tubaab yi waaye ñi nga xamante ni nit ñu ñuul la woon sax te doonoon ay païen ay non musulman doonuñu woon ay jullit daf doon jihaad ngir dugal leen ci lislaam bi tubaab bi ñëwee am na diir bu yàgg boo xamante ni bii xeex doxul seen diggante waaye tubaab yi bañ gu ñu bañ lislaam tax na ngir mën a défendre seen commerce dem nañu ba xeex dox seen diggante ak jàmbar jooju di El Hadji Omar Foutiyu Taal xeex yi ci gën a metti bokk na ci bi nga xamante góor yàlla bu mag boobu gaaw na nasaraan bi ci foor bi nga xamante ni bii tabaxoon nañu ko ca Médine Médina léegi ci Mali la bokk nga xamante ni ay weer gaaw na fa tubaab yi wër leen ba sonnal leen lool waaye ngànnaay yi nga xamante ni moom la doon jëfandikoo dafa wuute woon lool ak ngànnaay yi nga xamante ni nasaraan bi moom la daan jëfandikoo ndax ñoom ay paaka ak ay xeej lañ yoroon te jamono jooju fekk na tubaab bi moom amoon na ay kanu amoon na ay mitrailleuse amoon na itam gaal yoo xamante ni bii ay bateau à vapeur la ñu doon daw ci ndox mi ngir mën a yóbbu seeni troupe amoon nañu itam ay ambulance amoon itam ay médecin yoo xamante ni bii danañu mën a faj ñi nga xamante ni ñoo gaañu ci nasaraan bi maanaam ñi ci am ay blessure te loolu boobu jullit yi ñooñ El Hadj Omar Foutiyou Tall euh, amuñu ko woon. ba tax na kon dañuy jukki tey jàmbaar yi nga xamante ni daanu nañ ci shahid te mooy faatu ñàkk sa bakkan ngir l'islam ci weeru mars 1855. fukki nit ak ñaar faat nañu leen ci dëkk bu ñuy wax Marsa ak Dumbudu gaañ fa ñaar fukk ak juróom ci ñooñ El Hadji Omar Foutiyou fukki fan ak ñaar ci weeru août ci même at mi 1855 fanweeri tukkuleur ak juróom-ñeent ñoom la faat ci dëkk bu ñuy wax Ngana te loolu la ko waraloon mooy benn traitant tubaab boo xamante ni bii faatoon nañ ko fa bakkanam boobe tubaab yi fayoon nañ ko fanweeri bakkani jullit ak juróom-ñeent ci at moomu ba tey ci 1855 ci weeru août wa junni ci jullit yi tubaab yi faat nañu leen ci dëkk bu ñuy wax eh, Koccaari ñaar fukki fan ci weeru août 1855 ba tey ku ñuy wax Seydou condamné nañ ko travaux forcé ñaar fukki at yoo xamante ni daf koy liggéey liggéey bu mu sëñ bañ ci même weer bi ut woowu ca ñaar fukki fan yi ak juróom ñeent ba tey ci atum 1855 Demba Sëy ak Samba Sëy di ñaar ñoo xamante ni bii ñoo bokk ndey ak baay jàpp nañu leen condamné leen fukki at ak juróom ñuy liggéey liggéey bu ñu sëñ te bañ fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 1855 Jacques doon doonoon tubaab arrêté nañ ko jàpp ko lan moo tax ñu jàpp ko dañu waxoon ni daf doon collaborer ak El Hadji Omar Foutiyou Tall dafa amoon cofeel ci moom loolu moo taxoon tubaab boobu ñu doon wax Jacques Guérinier ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre 1855 ñooñ El Hadji Omar Foutiyou Tall ñu bari ci ñoom faatu nañu ci dëkk bu ñuy wax njàngaan benn fan ci weeru octobre 1855 dëkk bu ñuy wax gaañ yi faat nañu fa ñu baree bari fukki fan ci weeru octobre 1855 ci bi juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri minute ci suba sëriñ bu mag bu jege woon El Hadji Omar Foutiyou Tall dañu ko faat ba nuppi taxan matt génnewaat dëkk bi ba ñu génn ci penc bi ñu taal ko lakk jëf ju ñaaw jooju tubaab yi ñu ngi ko jëf ci fukki fan ci weeru octobre ci atum 1855 ñu teg ca ñeenti fan fukki fan ak ñeent ci weeru octobre 1855 Amadou Abdoulaye Ali moom dañu ko jàpp taxawal ko ca pencum Bakel fusillé ko maanaam fetal ko mu daanu ñetti fan ci weeru novembre 1855 fukki sëriñ ak ñaar la ñu expulsé génn leen Fuuta ñi leen dootu leen fi jaar li ko waraloon mooy dañoo takkoon ay insigne maanaam weer ak biddiw yi nga xamante ni bii moo doon insigne yu El Hadji Omar Foutiyu ñu takkoon ko loolu moo tax ñu expulsé leen génne leen Fuuta ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre 1855 ku ñu wax maxtar Samba ci ko déporté yóbbu ko Gabon kañ doon wax Mamba ñu déporté ko yóbbu ko Grand Bassam mm, ci Côte fukki fan ci weeru décembre 1855 ku ñu wax Samba Sey ci lañu ko atte déporté ko maanaam génne ko yóbbu ko goyaan di benn dun bu bokk ci France gannaaw ba ñu ko attee condamné ko ci liggéey bu sëñ bañ muy travaux force gaal gi ñu ko dugaloon doon ko yóbbu Goyane moo ñeenti prisonnier bi gaal gi demee ba ci digg géej gi tubaab dañu jël ay xeer yu mag boole ko ak euh, sàmb Sey moomu ak ñeent ña mu àndaloon takk leen ak ay xeer yu mag diigal leen ci biir géej gi ñu suux ñàkk seen bakkan ci ñàkkin wu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre 1855 fukki nit yoo xamante ni ñu ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Jomaane ñoom itam faat nañu leen ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars 1856 juróom-ñeenti prisonnier yoo xamante ni juróom ña ay kilifa yu mag lañu ñu woon yu jigale yu jige woon El Hadj jàpp nañu leen taxawal leen benn par benn di fetal ñuy daanu ba ñu jeex ñoom juróom-ñeent yooñee juróomi fan ci weeru avril 1856 ñaar téeméer nit ñooñ El Hadj Omar Fouti ñoom la ñu bett ci dëkk ba ñu doon wax nayan taal dëkk ba lakk ko ci seen kaw ñoom ñaar téeméer ñooñee kenn génn juróom benni fan ci weeru avril 1856 dëkk bi ñuy wax Gidimax lakk nañ ko ñu ëppoon ca dëkk ba ci lakk googee ca la faatoo fukki fan ak ñett ci weeru avril 1856 téeméeri soldaar ak juróom fukk ñooñ El Hadj Omar Foutiyou ñoom itam faat nañu leen juróom-ñaari fan ci weeru mai 1856 ci bi ñeenti waxtu tegale bi ñeenti waxtu ci fajar jote fukki nit ak ñett faat nañu leen fanweer ak juróom ñu gaañ leen jàpp fa ñetti prisonnier ba ñu leen jàppee dañu leen décapité mooy dagg seen cër yi bopp ba loxo yaak tànkee benn par benn benn waxtu rek gannaaw ba ñu leen jàppee ci dëkk bi ñu doon wax seeni Sénédébou ci lañu leen jëf jëf ju ñaaw jooju nga xamante ni ñoom nasaraan bi jëf nañu ko ak ñett ci weeru décembre 1856 ci bi fukki waxtu jotee am na gaal gu ñu doon wax le serpent te amoon juróom fukki soldaar yu ñu daan wax ay euh, bakiris ci lañu songu dëkk bi ñu doon wax Yaakura lakk ko lan moo ko war loon dañuy wax ni am na ñu dëkk ca dëkk ba ñoo xamante ni dañuy jàppale El Hadji Omar Foutiyou ci xeex boobu mu doon xeex ak euh, nasaraan bi ñu teg ci ay bis ñaar fukki fan ci weeru décembre 1856 ci lañu ñu détruire euh, village boobu ñu doon wax Dioga ak Arundu te gaal googu ñuy wax le serpent moo faagaagal ñaari dëkk yooyu ba ñu jeex ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre 1856 njaay ku ñuy wax Ndiayeen ak Birame Touré ci lañu leen atte wax ni dañ leen di génne Sénégal yóbbu leen Goyane ngir ñu tëdd fa peine bi nga xamante ni bii moom la ñu war a tëdd. ñeenti fan ci weeru mars 1858 e, téeméeri nit lañu faat ci Ñomre ci Fuuta. fukki fan ci weeru avril 1858 Ahmadou Galaji doonoon doomu ex almaami Youssouf ci lañu ko faat ci dëkk bu ñu doon wax Cempen juróomi fan ci weeru juin 1858 benn prisonnier tukkuleur la ñuy jàpp ci dëkk bu ñuy wax Garel exécuté ko maanaam faat ko te ki defoon loolu moo doon. ki commandé woon gaar gi ñu doon wax pilot fukki fan ak ñett ci weeru juin 1858 commandant bu post bu Bakel ci la lakk dëkk boobu ñu doon wax jaagi la prisonnier ba nga xamante ni bii moom menn moo ci dawoon génn rëcc ci lañu ko jàpp euh, takk buum ci baat bi yéese ko ci garab ba noppi soqi ay sox ci kawam gannaaw ba mu faatoo te loolu li ko waraloon mooy bi nga xamante ni El Hadj Omar Foutiyou Tall gaw na nasaraan yi foofee ca euh, Médine te kiñ ñu doon wax Poolol mi ko jiite woon waa dëkk boobu euh, doon jàppale El Omar sonnaloon ko lool loolu moo tax euh, chef de post bu euh, Bakel jëf jëf ju ñaaw jooju ci fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre 1858 benn tukkuleer la ñu jàpp yéese ko takk buum ci baat bi takk ci garab diggante dëkk bu ñuy wax njaaxal ak paal benn fan ci weeru décembre 1858 rakki El Hadji Galadio Amadi doonoon chef de Dakma ci lañu ko jàpp mook aw fosam ci opération boo xamante ni bi tubaab bi ñu ngi ko doon amal daje ak moom ci lañu ko euh, jàpp fukki fan ak juróom ci weeru janvier 1859 ku ñu wax Béthiy ak Guerno ñoom itam ci lañu leen jàpp ñoom dañoo jige woon kuronu boru wàllo lool li ñu leen jàppee nag ñoom tuwaab yooyu dañu wax ni dañu attaché woon lool dañoo soppoon lool El Hadj Omar Foutiyou Tall loolu moo taxoon ñu jàpp leen e, ñaar fukki fan ci weeru janvier 1859 benn taalib El Hadji Omar Fouti taal la ñuy jàpp ci wetu Podor fetal ko te ki defoon loolu di woon kenn ki joxewoon woon ndigal li ma doon commandant de poste bu Podor fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février 1859 fukki nit ak benn ci ñooñu El Hadji Omar Fouti Tall ñoom la ñu jàpp taxawal leen di fetal benn par benn te ki jox woon ndigal li moo doon commandant de poste bu Richard Toll ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 1859 Jamkoné doonoon marab bu mag bu jigéen El Hadj Omar Foutiyu ci lañu ko faat ci dëkk bi ñuy wax Mudéri juróom-ñeenti fan ci weeru mars 1859 ku ñu wax Ceerno Jibi doonoon kilifa gu mag gu jigéen El Hadj Omar Taal ci lañu ko faat ci dëkk bu ñuy wax Tutantaare bokkoon ci Tomoore ñaari fan ci weeru avril 1800 tubaab bi tuddee woon ko révolte des marabouts du Njàmbur ci lañu faat sëriñ Louga ak sëriñ su baree bari te loolu tubaab yi am na kuñ daan wax Samba Maram Xaya moom la tubaab yi moo àndoon ak tubaab yi jëf jooju moo ko dox ba ñu xëy woo sëriñ si ni ñu leen dañu leen a soxla commandant leen woo ñu ànd ak seen i sant ba ñu demee ñu jox sant fos yo ni leen dellu leen dañoo am waxtaan wu ñu war a def ak ñoom sëriñ si keroog la ñu mujj xam ci ñoom dara seeni njaboot xamatuñ ci ñoom xamuñu kaw la jëm xamuñu suuf lañu jëm loolu mu ngi amoon ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre 1859 ñetti fan ci weeru octobre 1862 ñetti téeméeri soldaar yoo xamante ni ñi bokkoon ci armée Maba Jaxu Ba faat nañu leen ci poste bu Kaolack te la ko waraloon mooy dammeel ma kodd bi nga xamante ni teggee woon nañ ko ci nguuru Kayoor gi te fekk ne booba doomam ji ñu doon wax Samba Laobé Fall doonoon buur foofee baayam ba mu ñëwee bëgg a jël nguur ga ci la xeex ak moom ànd ak El Hadji Omar Foutiyou Tall poste bi nga xamante ni la laprade ñoom tabaxoon nañu ko ci kawlax ñu song post ba fekk kano yaa nga fa keroog ñetti téeméer daanu nañu ci ñooñ euh, tafsir Maba Jaxu Ba ca Kaolack juróom-ñaari fan guddi juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru février 1864 góor yàlla bu mag bi nga xamante ni bii ñëwoon na Mbàkke Bawal ngir seede si ni dana feeñ ko tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba te waxoon ko waajuram Serigne Mor Anta Sali di El Hadji Omar Foutiyou ci la réer dans les falaises de Bandiagara kon moom mu nga xamante ni li ñu fi wax lépp ñañoom la ñu ñàkk seen bakkan ngir lislaam mu di ko taxaw di ko taxaw ba keroog bi mu réeree ca Bandiagara kon góor yàlla bu mag boobu di El Hadji Omar Foutiyou yàlla nañu ko sunu borom fayal jëfam jooju nga xamante ni jëf na ko ngir lislaam sax fi di dox ku daanu keneen jógaat ba bi sëriñ bi di ñëw fekk na ñoom góor yàlla yépp ñu daanu ba sëriñ Moussa Ka wax ni lislaam boobu amatul ku ko taxaw ndax jàmbaar yi ko doon taxawu dem nañu lislaam doon ab jirim toog di jooy lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ca soowu jant fépp mel ni làmbaay ci la sëriñ bi feeñ nag bambaani maay na ma dalub lislaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu kon juróom-ñaari guddi juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru février 1864 ca la réer ca fali sa nekk Bandiagara góor yàlla bu mag boobu di El Hadji Omar Foutiyou Tall yàlla na nu ko sunu borom mu bu ñu waxee na Cheikh Omar dafa xeex ak tubaab yi loolu du dëgg déedéet am na ku ñuy wax nag Serigne mbay Guèye Sylla na def attention mu dind lu mu wax li si internet bi te internet bi bu buñ ko si dugalee wax loo xam ne du dëgg si suñu chef religieux suñu xalifa yi loolu day indi ay réeroo te du dëgg na ko dindi parce que internet bi mun na def cent suñuy doom yi doom yi suñuy sët yi ñëw di ko jàng naan suñu maam yi dañ leen a buub ah suñu mag ñi tedd ñi dañ leen a buub yéen seen mag ñi tubaab yi ñoo leen buub te loolu di ay kacc dara du si dëgg histoire bu ma wax bi moom Serigne Mbaye Guèye Sylla na ko dindi te nag mu jéggalu si kër Cheikh Omar Foutiyu kan moo ko waxloo ba muy wax ay histoire Cheikh naa Omarul Foutiyu loo xam ne tubaab yi dañ ko bind walla moom fan la ko jëlee na ko na ko dindi du yoon te ngay jullit nga ne taalibe murit nga te Cheikh Al Khadim Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacke radiyallahu taala anhu di doomu Cheikh Omarul Foutiyu radiyallahu taala anhu ah. ba Cheikh Omar jëfanteeg ak waajuram sunu maam maam Mor Anta Sali soxna si maam Jaara bu sa radiyallahu taala anha ba mu ñëwee ba nàndal Cheikh Omar takk ndigam root nàndal Cheikh Omar ñu mu àndal ñëpp moom soxna maam Jaara bu sa radiyallahu taala anha ba naanee ba pare jox ñu mu àndal naan moom soxni moo leen nàndal takk ndigam ba mu ñëwee ba pare mu sukk si kanam Cheikh Omar ne yow Cheikh Omar dama la gis sopp la ngir yàlla moom soxna maam jaara de dama bugg nga ñaanal ma am doom ju barkeel Cheikh Omar saan xool ko muñ ne incha allahu yàlla dina la ko dénk Cheikh Omar ñaanal ko Cheikh Omar di jóg di dem mu ne ko ah sama borom kër mi ngi si daara ja feebar juróom weer munul génn Cheikh Omar ne ko ànd mu mu ne mi ngi si daara ja Cheikh Omar dem ànd ak moom mais dafa nuyoo moom Mamor Anta Sall dégg baatu Cheikh Omar mettit bu nekkool si ndigg la yëpp dañ mu génn si ëtt bi nuyoo Cheikh Omar Cheikh Omar mu ne ko de dama dégg sa baat sama métti bi yëpp dañ Cheikh Omar ne ko du feebar de leer la bu nekk si yow leer boobu dina ganee àdduna dina omat ruuxu doomu aadama yi jubaleel si yoonu yàlla te boroom jamono lay doon muy xaadim rasul waaw Cheikh wax loolu si kooku tetal leel neleen sampal fii bant sampal fii bant maam Mor Anta Sali ba mu nekk cercle mu ne ko fii sama ginnaaw mbooloo dina bëri fii lool lu waay ñaan fii yàlla yàlla nangu ko foofu mooy jumaa Touba ji jumaa tuubaa foofu la doon Cheikh Omar di fanaan ba gis leeru Cheikh Al Khadim Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacke waaw waaw wax ko waajuram jox ko téere bi ne su ñëwee borom jamono lay doon na ko ko jox waaw kooku def loola yow ngay taalibe murit yow sëriñ mbay gay silla na nga xoolaat sa bopp sunu mag ñi nañ leen respecté ngay wax histoire boo xam ne tegoo ko fenn cent cinq nga ne a maatam a Bakel Cheikh Omar ñu mu sampool foofu tubaab dañ leen la buub ay dëkk ay dëkk di wax wax Cheikh Omar fu ñu buubee ay nitam wala fu ñu ko dàqee loolu mooy lan te Cheikh Omar 1855 mi ngi doon jëflanteeg ak ruuxu doomu aadama yi di ñaan yàlla na ñu doon ay jullit wallahi Cheikh Omar loolu moo doon métier si jamono boobu lu mu wax nii ay kàcc la mille mille cent 1800 1855 Cheikh Omar mu ngi doon ñaan yàlla ruuxu Sey Hadji Malick ruuxu Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacke yooyu yëpp Cheikh Omar mi ngi duggool si loolu ba tasanteeg seeni waajur jox leen lu mu lay jox kooku talu wool xeex ak tubaab yi dafa doon ñaan yàlla ginnaawam si jihaad bi ñii ñii di ñëw ginnaawam nañu jël relais bi muy Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacke maam imaamu laay yoof di Cheikh Hadji Malick radiyallahu taala anhu Cheikh Omar loolu moo doon mission yow nga dem di kàcc di wax mille huit cent cinquante cinq Cheikh mar fii mu demoon fii ay téeméeri téeméeri nit dëkk boobu tubaab bi lañ leen jàpp ñëpp ñu buubu leen taal ko mais mooy lan te kiy liggéeyal yàlla te encore 1855 ba 1857 moom xamul lu muy wax 1857 foofu la tubaab yi duggee Medina fu ñuy wax xaay fekk Cheikh Oumar mi ngi dem seeti ji arme 1857 à 1859. mais moom moo tax lu ñuy wax li nañ ko teg si yoon xam-xam suñu histoire maam yi nañ ko teg si yoon bu ñu tuuteel suñu maam yi wala bu ñu indi ay yenn yoo xam ne réeroo lay doon si réew mi te kenn nu fi indi réeroo si digganti tarixa yi déedéet ku ko def boroom moo siy alko incha allahu kon Cheikh Oumar mi ngi demee Makka à l'âge de vingt trois ans ah vingt trois ans mu dox ko jaare Égypte ñaanal leen université bu gën mag ci àdduna bi Cheikh Omar nekk na fa ba jaay ba jaayanteeg ñoom xam-xam ba wandeel xam-xam jàll dem Jérusalem fii mu tasanteeg gouverneur feder ba ba Faidherbe bi gis na ko dina ko feeñal rek mu daw waaw ñëwaat na armé wuwaat kon Cheikh Omar Fouti radiallahu taala dañuy wax jaar-jaaram foo xam ne tubaab yi dañ ko bind mm-hmm. parce que lii tamit du yoon bind loo xam ne di ko wax si ku tedd ku xam ne ku yàlla may la loolu nañ ko moytu tubaab yi lu ñuy bindi lu bëre du dëgg xoolal koroog lu ñu def ba France génn benn jaasi ñu ne jaasi Cheikh Oumar la kay loolu dinañ ko leeral jaasi boobu du jaasi Cheikh Oumar déedéet parce que dafa mel ne borom buñ ko de kon dañoo jàpp Cheikh Oumar ba jël jaasi bi jaasi boobu lan la sëtu Cheikh Oumar doomu Cheikh mar ku ñuy wax Amadou Cheikhu moo meññ Abdoulaye taal Abdoulaye Tall boobu nag ba Arsenal ñëwee Ségou dugg ci këru ma doomu Cheikh Omar ñu ñuy wax Amadou Cheikhou. waaw waaw léegi yow nga ni tarixa Cheikh maanaam ñooñu Cheikh Tidiane yéen Cheikh Tidiane ngeen moom naa ngeen def seen sëriñ. non Cheikh Tidiane moom mooy suñu sëriñ ndaxte moom léegi kooku ci kan la leen jëmale ci ci wax la leen jëmale ci waxu yàlla. ci waxu yàlla. loolu sens indirect la mais ñun sens direct yàlla lañ jëm direct. mais yéen loolu la ñu ci yàlla wax dëgg yàlla loolu jëmee ci yàlla direct yàlla kenn mënul dem ci moom direct te jaaroo ci ay nit. sëñ Tuba yàlla la sëñ Tuba. sëñ Tuba la yàlla. sëñ Tuba xanaa naa la yëgal nga tëj sa braquette boobu di woote. te walaay sama kudd boobu nga am te teel a ngi. <laughs> kudd baa yi sëñ Tuba di yàlla. waaw maa baax rek maa ngi ñëw wax ma wax ma rek. mais yow xam nga sëñ Tuba yàlla la yàlla. déglu. waaw léegi wax ma lu tax nga ne sëñ Tuba yàlla. ah direct YouTube ngeen nekk. dama taxu ci géej gi julli dekk YouTube defoon naa ne. déggoo leen ma de ah dekk YouTube ngeen nekk. waaw mais yéen sax xam ngeen ko. yow loolu nga wax. waaw yow mii ndax nangu nga ko de. saa dañoo may taxawal la YouTube ngeen nekk ànd ak. ah benn jour bu ñu jógee fee nga ne ma murid moom mooy lan. kuy dem ci yoonu yàlla. waaw dem ci yoonu yàlla. waaw du tarixa mais ñun tarixa cheikh lañ am. yéen da ngeen di ñëw tarixa cheikh. ah tarixa cheikh yéen yéen da ngeen di ñëw seen tarixa ngeen tuddee ko tarixa cheikh. non non tuddee wuñ ko tarixa cheikh non yéen a ko tuddee. non non ñëw tuddee. xam nga tarixa cheikh tarixa cheikh tiijaan yi ñu ko tuddee. nit du man non damay may mu wax. nit boo nangoore nit boo nangoore laayee ni. nit boo nangoore après ñëpp day daal di nekk. waaw mais moom du nangu. yéen yéen yéen yéen <laughs> mais suñu tari xool nangu li ko yàlla def. ci yow yàlla waaw nangu li ko yàlla def. boo nee moom boo ko fi nekkoon. mais kenn moo fi ko tegee ko ne indi loo xamante ne nii moo gën a gaaw avion. kii taale nii yooyu pour dem ca yàlla muy kan muy Cheikh Ahmadou Bamba kii daa baax rek bu rapide bi la fi jël indi ko teg ko fi imposé ko fi ñoom ñu nangu ko di ko def ndax am na ñuy root ci ñoom di ñëw ci ñoom di wut ci yoon bi wala déggoo xam nga xam nga yéen am ngeen seen kii xam nga ni am ngeen seen gaam bu ngeen def xaw ma fan ban dëkk sax Ndiassa waaw non non non kii Diaksa waaw Diaksa non Diaksa du kaa ma expliqué la taxawal taxawal foofu noonu expliqué la xamuma loolu mu ah, mu ko ndax xamuma kaa ma expliqué la ba pare pour sa xel daal fii ñun ci ci kaw euh, suñ maam bi bu nekkee woon. nekk di def sa lii nii. waaw El Hadj Malick Sy mu njëkk def mu njëkk célébré. Hmm. mu njëkk célébré laa la wax judd yonent bi. Hmm. nangoo. non foofu noonu Serigne Touba moo njëkk a dugg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw kon kon xëccal ma xëcc sama bopp. voilà voilà daal xam naa ne su ma ko naree wax fii ba sonn. waaw doo d'accord. voilà waaw ak yow instant bi nga jàpp loolu daal. waaw yow it nga jàpp loolu. li ma jàpp xam naa ne damay wax fii ba suba munoo ma d'accord. yow it damay wax fii ba suba munoo ma. léegi non waa léegi danga may wax yow yéen preuve la Serigne Touba njëkkee. Sëriñ Tuubaa moo njëkk a woote moo njëkk a màggal moo njëkk a màggal juddub Seydina Muhammad Tuubaa léegi yow ñëw yaa yaa yaa ngi tax sa bopp de waaye léegi moom bu mu ko defee ba pare kon lu tax ñu naan waa am foofu ma tànk ma laaj la dara lu tax ñu naan au delà de boobu noonu ñu naan euh, gàmmu tijaan yi fan kon lu tax ñuy wax ñun yéen a ko dégg déedéet jëluñ ko de jëluñ ah. ko de waaw yàlla yéen a ko ndaw dafa am yoo xam ne rek boobu euh, ànd naa boo réfléchir carrément. conscient waaw boo nekkee conscient rek ah. kon du neen rek ñu jug rek ñu ne euh, taalibe cheikh yi ñoom ñoo moom gaaw nit ki li nga njëkk def. lu ko waral léegi lu ko li nga njëkk a def. moom moo ko njëkk a ah, ci mun ci nee moom su Tuubaa moo ko njëkkee rek mais man naa ne laaj maa ngi si ko fi def. moo tax ñu ne gàmm yi tijaan ak moom la même chose xam nga gàmm la lañ wax gàmm fi nga toog mun nga ko célébrer. waaw gàmm mën nga toog sa buntu kër toog célébrer ko. waaw ndaxte kan ngay célébrer. Seydina Muhammad gën ci ñu def. waaw waaw. Mm-hmm. léegi El Hadj Malick da doon jël. di waaw man bi ngay gis njëtt lii la. Mm-hmm. mooy une semaine bi mooy gàmmuwaat bi. waaw jagsaaw bi ngay gis xam nga jagsaaw kan moo ko nii ak fii xam nga jagsaaw kan doomam maam Abdou. dafa mm-hmm. amoon ay tool. nit ñi am fa ay taalibe ñu bokk fa. Jolof bu may dem gàmmu annuel janvier ñoom tamit la même chose. El Hadj Malick si moo ne kenn amatul droit di dem fii ba Tiwaawan di jël di wetu. Mm. teg na fa El Hadj Daouda Dia. Mm. kooku noonu mën na la def moo def ñoom tamit dañuy toog foofu noonu defee ba moo tax man bëgg la tënkal ne looloo tax ñaseen yeeg. Tiwaawan yeeg di ko jël ku nekk mm. toog sa koy. mais bu fekkoon ne comme même lieu la mel ni Touba mu xam ne ne màggal benn kese koy def ñuy Touba. bu fekkoon ne même lieu la ñun ñëpp buñ dajaloo xajuñ fa. buñ fa. car mm. macha allah ma waxal loolu ñoo leen ëpp fukk junni yoon. waaw bu ngeen boolee tarixa yi kon non non non amul tarixa boole mais xam nga ni murit moom foo nee murit dañu xam ne nii. waaw mais yow murit yi. kaay ma la yow kaay ma la yow bu ñu nee murit am na Baye Fall. mais Baye Fall ci murit yi la. léegi ñeseen yi si tijaan yi la. non non kon xam nga boo nee. murit Baye Fall Baye Fall yooyu murit. ñoom ñaar sax bokkuñu sax yoon. lan lan yow li ngay wax yow man maa ko yow man maa ko. parce que yéen seen mbokk yi da cee am ñu ciy diingat ñële. ñu ciy diingat la man yaakaar naa ñaata fan yow bu ma kaay man ñaata yoon nga dégg man da nga mës a dégg benn taalibe cheikh buy diingat ñeseen. barke Seydina Muhammad lu mu wax lu mu wax waaw mais wuyu ma xam nga problème bi nan la lu wax ci ñeseen yi. xam kon yéen ba ngeen xamee lépp benn la moo tax la moo tax waxoo leen maanaam. xam nga lu tax kaay ma wax la. kaay ma wax lu leen différence mm. ñun étant fini mbokk yi euh, man nag dama wuute nit ñi jamono ya may nekk ci sufiyanke gi daanañ daanañ euh, tijaan yi ak murit yi fii am na jamono yoo xam ne nii euh, bokk nañ benn daayira nga xam ne daayira tijaan yi bu ñëwee ci genn kër gi lañ koy defee daay murit yi ci genn kër gi lañ koy defee mais man booba it Euh, la ma leen waxoon mooy euh, murit ak tijaan de ci seen xam nga man damaa yàgg xam seen originaire ma ne leen murit ak tijaan buñ dee bokk di buñ dee bokk di def daayira am na ci ñu nar a wàcc seenu seenu yoon parce que bu fekkee tijaan yi dañuy ñëw di jàng xasaayit di jéem a jàng xasaayit murit yi ñëw di di ñëw di jéem a di jéem a wax euh, naasiril xaq bil xaq wal aadi ila siraatikal mustaqima vraiment dëgg-dëgg yaa problème naa feq dugg na naa feq dugg na wallahi la asib naa fekk dugg na parce que kenn ku nekk ca kala formé woon buggul woon nga jege ak ka kenn ku ci nekk kala formé woon buggul nga jege ak ka ca des bu ngeen bëggee it ma dugal ma dugal lu koy loo xam ne ni ñoom ñoom ña kenn bugg ci woon a doon moromam kon ñi ñi leen fi wuutu tasaaroo ci bitim réew même bu fekkente ne ñàkk ay moyens la ñoom ñëpp mënuñoo am daayira ñu daal di def coalition da daal di daal di di wut genn kër naa fekk dugg na naa fekk dugg na man ca laa jóge bañ a demati ne leen naa fekk dugg na man dama mënut a tappale de. am kuréel gun bëgg a taxawal kuréel googu nag ñoo ngi ko bëgg a taxawal buñ kas rajo bee ba ca suba ga di leen yëgal ni képp ku ci bëgg a bokk te nekk dëkk boo mën a ne boo ñëwee Touba buñ kas rajo bee ba am ñetti fan. wala ñeenti fan kon kas rajo bee ba am ñeenti fan sax la ñun ñëpp ñu daje dem kër sëñ Abdou Samatum Serigne Sohaybu dem ci kër sëñ Fallou Fall moom sëñ ablaay Fall Ndar bu nu fa jógee dem ci am setu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñu am lu ñu bëgg a waxtaane muy kàddu yoo xamante ni dañ koo bëgg a ànd ak jullit ñëpp di kuréel gu nuy taxawal ndax boo xoolee fi mu ne nii internet bi ay xale yu ndaw a ngi ci nekk yoo xamante ne ñoo ngi fii ci biir Sénégal jóguñu fi yor ay piis yoo xam ne piis yi bitim réew la di saaga suñ kilifa yi di xas suñ kilifa yi ñoo ngi tàllal loxo képp ku bëgg a bokk ci kuréel kooku daal woonan la buñ kas rajabe ba mu am ñeenti fan ñun ñëpp ñu daje barabu ku tedd ki di Cheikh Mouhamadou Fadal ñun ñëpp ñu àndandoo dem waxtaan ci kilifa yooyu nga xamante ni tudd nañ leen di sëñ am sa moom sëriñ Sohaybu di sëñ Abdou Samatum sëñ Soyibu suñu am sam Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Fallou Fall ngir euh, mboolem koo xamante ne mi ngi nekk ci internet bi di wax kilifa yi lu dul noonu wala di leen saaga kenn ku ci nekk identifié nan la ci numéro ba nga yor fas yéene àgg daal fas yéene jàmbaarloo ñoom ci weneen wu dul wii ñoo ngi nii nag nekk ak ay kilifa ci ñenn ci ñi sant Mbàkke ak kilifa ñenn ci ñi sant si ñoo ngi nii toog ak sëriñ Xaadim Mbàkke toog ak sëriñ Ousmane mu sëtub maam Abdou Aziz di doom di sët ci sëñ Mbay si fii ci monument Colobane bi nag dafa am ay Ibaadu Rahmaan yi fi ñëwoon doon def daxawa doon woon doon waaraate waaye dafa mujj jur coow coow li mooy ñi nga xam ni xëy na du ma tudd genn kuréel sax waaye ñi bokkul ak ñoom euh, gis-gis ah ñoom ñoo ñëw indi commencé indi coow. yow lan nga gisee séparation bi am fii diggante Ibadu ak yeneen tarixa yi. amul grand Mouride xam nga ban 1900 la ay eh, 1800 la tarixa amul boo dégloo sëriñ bi sëñ Mbaye si Abdou Aziz. Hmm. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. moom chaque année da ngay dégg muy wax ne bu ñu demee bay tudd jàkkee Mouride jàkkee Laayeen jàkkee Tijaan si la ñu commencé jaxase am na ñoom ñoo ko fondé hmm. mais du ñun ñun ku ñëw nawloon nañ la. fii Colobane boo demee kër ñen ñoo ko fonde ñen ñan ibaadu yi ibaadu ñoo fonde lu mel noonu ndax ñoo ñëw ñoddi loo xam ne tey boo demoo Alpha boo yoree kurus bu ñu la xoolee da ngay daw génn man dama fa dem xiyaamu léegi dama ko bàyyi ñëw fii nii xam nga la ma war a lool talibé laa dama yor sama kurus damay def samay awraat man su ma ñëwee damay julli ñaari raax toog naafila su ma paree damay yor sama kurus di wér di ñaan yàlla mais buñ la xam ne yow bokkoo su ñoom te mën lañ la jëw mën lañ la indil fitnaan boo paree ci ñoom loolu boo demee fii kër xalifa Serigne Touba moo fi nekk xamul wa kër sëñ Modou Moustapha mu ngi fii nii nga dem kër Tabi fekk fa kër Alaaji Abdoul Dabakh lan moo tax ngeen ciy boole ay fen seen wax yi xam ngeen waxi tàppale la mu ne ay murit tiijaan xaadar xaaj xàccale xàccale boobu ibaadu yu ñoo ko fi indi ci ci ñu dem fekk ibaadu yi noonu ne ibaadu yi ñoom ñoo fi indi xaajale boobu quoi ñoo fi indi xaajale diggante murit tijaan laayeen xaadar ñaseen ibaadu kañ la fi am tur Sénégal kañ la am tur Sénégal te sax kañ geen doon kañ lan nga leen di woowee léegi wahabis yéen yéen a utal nit ay nit tur naan ay wahabis waaye nekkul ibaadu yi ñoom ñoo toog naan ñoom ay wahabis lan léegi bu ngeen demee ba xeex dëgg jot ni yahuut yi doon dem ak nasaraa yi bu demee bay xeex lislaam yahuti ne nasaraan yi nekkuñu ci dara nasaraan naan yahuti nekkuñu ci dara mais bu ñu demee bay xeex diine islam après dañuy bennoo yéen man murit laa bu xàcc murit laa woon bu xàcc astafurlaa murit laa woon bu xàcc man ma xàcc wallahi murit yi kin gën a bañ mooy eh, eh, eh, kii Babacar si yéen ñan ngeen yàpp lan la ñuy woowee Tidjane yi sett sett la ñuy woowee Tidjane murit nawlawut Tidjane loolu pour mu leer papa yi sëñ Modou karaa def na ci ay audio ay kii yoo xam ni ay waxam mi ngi fi mi ngi fi des fii lan la ñuy wax képp koo xam ne yaakaaruloo sëñ Tuubaa loo jur mu lakk kër goo dëkk mu torox xaw ma lan loolu dañ ko daan man mii di wax ak yéen saa baay tijaan la man mi musuma nekk tijaan wallaahi tijaan rek laa mës sa bañ. ndax seen wax yooyu waxi waxi tappale waxi fen la boo déggee xam ne rek ay ku nu soq bëgg. ñoo tax ñu naan ñun waa tasawuf ne Maodo ne kii wallaahi gëmoo leen Maodo ndax nee ngeen Alaaji Maalik yéen ñan ngeen yàpp sama gars fan ngeen teg tuba yéen da ngeen nawloo tijaan yi nañ waxante dëgg tijaan yi danoo nawloo murit nañ waxante dëgg li fi nekk wallaahi kon seen yii ngeen di wax nii wallaahi da ngeen di tàppale ban ban ban benn ban ay bennoo tiijaan murit ku ci nekk yow tijaan bi toog sa dégg yaa ngi may dégg sa digganteeg yàlla sa aqullahi taala nawloo murit wallaahi wallaahi pour yow moom murit du dara wallaahi sa digganteeg yàlla murit bi sa digganteeg yàlla na loog murit man dama nekkoon murit bokk ci ay daayra am sëriñ kii bu koo leen am naa sam benn copain Baay Faal boo xam ñun ñaar dañ doon toog nekk ay waay kii affaire wallaahi nee na dafa doon seeti benn copinam mais bu koy seeti photo sëñ Babacar Si da koy déranger Babacar Si rek la bañ murit yi kin gën a bañ mooy Babacar si ndax Babacar si ak sëñ Fallou ñoom ñaar genre journée wetaan lañ leen def ndax Babacar li sëñ Fallou am loolu la am comme yàlla la ak day kii wag di génn nag di di am ñu def ko benn photo comme li gel bi waxoon sax bi sotti ndox sëñ Babacar fekk nit ki labu mu ko kii sëñ Fallou tam yooyu lañ ko jox moo tax murit yi bëgguñu sëñ Babacar si mbay si rek lan bañ e, coowal Tiwaawoon googu ñuy nettali nga xamante si yéen xanaa tey la. xanaa tey la xam nga murit yi amoon doole te xanaa tey la dañuy toog carrément naan set dañuy toog carrément naan euh, di nettal ay histoire sëñ Babacar si ñu ne sëñ Babacar si ba mu deewee léegi après xaw ma kan ci doomam bi xaw ma Cheikh Tidiane xaw ma kan ne sëñ Babacar si wàllewu la histoire boobu si ñaata la siw Sénégal ay nit yu waroo ñaata murit ñoo kay nettali ban ne sëñ Babacar si wàlluwu la léegi après ñu ne ñu ne euh, euh, sëñ Cheikh Tidiane ne nañ dem sulli ko buñ ko sullee moom di nga xam ne sama baay wàllu la doo leen ko fekk mu kii ñu ne ñu sulli ko buñ ko sullee sëñ Babacar si dafa nëb gars yi naan leen ñu ne Tiwaawan dañ fay tere suul leen ñu naan Tiwaawan dañ fay tere suul leen ñu ne sëñ Babacar si ba mu deewee ca kaw étage ba lañ ko jëlee ndax kii ca étage la nekk ñu yor ko wàcce ko yéen li ngeen di wax lu bon lépp ay vidéo nekk fi ngeen naan benn kan ngeen yàpp laa leen di laaj ba ba tubaab ba ñëwee ca ba tubaab bi ñëwee senegal alaaji Maalik maam alaaji Maalik guro la doon jaay guro dafa ragaloon muy jaay guro sëñ Tuubaa rek ay jàmbaar taxaw na yàlla yàllaay buur ba ñëwee bureau ba ca Ndar mu taxaw tubaab ba ne ko yàlla la mu ne ko kàcc nga kàcc nga kàcc nga mais yeneen mag yëpp dañoo daw yàpp xaj ba ca Ndar nee ngeen ñëpp sëriñ si yëpp ci yéey yàpp xaj bu ñu leen joxoon ñëpp ci yéey ba mu des sëñ Tuubaa ñan ngeen yàpp ku ci nekk toog di kii sama waay même bu dul lii ngeen sincère quoi ngeen sincère man gëwma tijaan bi wala kii wala mais kii li muy wax neexum bu leen neexee ngeen dem bu leen neexee ngeen weddi yàlla bu leen neexee ngeen toog ngeen ne bu fi kenn firi alxuraan ngeen tëb dóor waaye kii gëm yàlla gëm yan saasam boo ko mbëkkee mu mbëkk la boo ko tullee mu tulli la bu la neexee mais nga sincère au moins nga sincère mais yaakaar nga ni fen fen fen dina leen may ndam seen fen seen tappale yi seen caaxaan sama gars yi yéen a tay li ngeen nekke xam ngeen ne ci ay fen ngeen nekke ndax bu nga demee seen wax ji naa wax rek ba gañe daal naa wax ba mbooloo bi ñëw ba ñu sot ay nit ba ñu keryeel ay nit loolu ngeen yaakaar di ngeen ci am ndam yow miy wax sa diggante yàlla xam ngeen da ngay fen ban ban ay murit yi ay ay ibaadu ñoo indi diggante murit tiijaan koo yab ña ñan yéen ban Sénégal dëkk boo am fen rek de tariixa yoo xam ne yéen seen wax yëpp daal lépp yéen yéen a koy dëggalee ci ay fen ci loo xam ni fen yoo xam daal doo ci sax ruus doole ci sax rus Sénégal lii moo tax ñu naan leen ànd bokk ci benn baatu laa ilaha illallah ndax ku ci nekk da ngaa am yàlla am yàlla bu nekk Touba am yàlla bu nekk Baye Niass am yàlla bu nekk fee kii ne wird Baye Niass boo ko jëlee Baye Niass moo fi raw kii ne wird Serigne Touba boo ko jëlee jàkkay murid jàkkay Tijaan jàkkay Laayeen Touba màggal Touba màggal Tiwaawoon màggal fële ngeen naan ñaari korité ñan ngeen yàpp yéen ban Sénégal ngeen wax ban dëkk ngeen yéen lii réewande la ñaari korité ñaar fu mu jóge diggante Tijaan murid la jóge ñaari korite ñaari tabaski ci ay jullit yoo xam ne nekk fi sëñ Abdoulahat nekk fi sëñ Babacar si nekk fi keneen ak keneen nekk fi sëñ Abdoulahat ne moom gisul bu kenn wori lu dul ci ndigalu sëñ Touba keneen na nii foofu la ay koor ñaari koor jógee Cheikh Oumar Diagne waxoon na ko fi ba ay coow am fi ba ñii naan loolu du dëgg ba ñuy naan di kii ay ñoom Mor Mbaye ko ci nekk génn ci ngeen kii ko mais ban Sénégal ngeen wax mais boo leen fen doo leen xalaat sax yéen di xalaat sax comme histoire yi am affaire yooyu mais pour naa gañ rek naa kër nit rek naa fen ma neexee ma fen nu ma neexee ni sax ay tariixa sax ñu ñu ko bind barke alxuraan da ngeen di fen wallaahi da ngeen wallaahi yéen yéen ñi koy di dina ngeen yaakaar ci ndam di fawee yàlla di fawee diini lu bon lépp ci lislaam li bon lu yées lépp loo xam ne lu ñàkk fayda jour tam xarit demal jàng moor sëñ sëñ sëñ moor mbay yaxuma la ca Jurbel jàng ya ku dàkk pakkar ni sa morom nga ne kii ci guddi ñu ne dañuy guddi màggal Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne dañuy gàmm mu yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy màggal di fecc ci ne loolu la ñuy màggale yet sa mooy tëggi tabala fecc ba tëb ne loolu ngay màggale Muhammad sallallahu alayhi wasallam même bu dee gàmm bi daala wala dara sax bu dee respecté nga masal ngay màggal ci masal waxal ay allahumma salli ala muhammad wala leneen mais fekki tëgg caaxaan yi yëpp nekk fi sëriñ si seetaan ko nekk ci ay escroc ndax seen magasin yi ndax seen moonin ndax seen poos di leen réeral ko topp suñ tarixa yi ngeen torop waxoo leen dëgg sama gars yi da ngeen di wallaahi waxoo leen dëgg dëgg yàlla gi dees koy leeral des koy wax wallaahi mu neex leen mu naqari leen dama ni leen laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumut wa huwa hayyun la yamut bi yadil xayra wa huwa ala kulli shay'in qadir walaw kariha alkafirun